jërë ngeen jëf mbokk julli mbokk taaliba yi ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci 4 mars 2016 ndikk nañ ko xamee tàmbali bi liggéey jumaay Touba ci Serigne Mouhamed Moustapha ci 1932 ba tey di 2016 ci teewaayu Serigne Moustapha Mbacke Mohamed ak daayira Ahibahil Khadim seen mbokk mbokk mbokk yi Mor Fall Mbaye fas yéene ci ànd yéen ci caméra bi Serigne Xari Ndiaye ci wàllu micro bi soxna Dior Diagne ci wàllu leer gi nag seen mbokk mbokk mbokk yi Mor Fall Mbaye 4 euh, mars 2016 ak site internet leelu point com tay production fas yéene ci ànd ak yéen jërë ngeen ñu wéy ànd ak ci 4 mars 2016 Gaynde ma ginnaw daaira bobu ñaanon ko pour ñu amal li nga xam moy maglu 4 mars waye timit fi sëñ Cheikh jugge ba tay ñukay koy ñu bëgg timit nga ñëwaat ci lool a ah, sëñ Cheikh mo joxe woon ndigal bi ko joxe ndigal mag ñim ko joxoon boobu ba tey benn 4 mars mosuñu ko jël 4 mars bu ñew ni ñu ko màggale tey rek non lañ ko màggale ba gisatuñ sëñ Cheikh sëñ Mbacke tok fi fedd li ndigal li ñam tam ñu ko magal ni rek ñu ko gisee rek du magal ba seigne mo seigne Moustapha mi nag يخني موتوك ما بيموتوك كره دايرن بيدو احباء الخديم لنصره الدين القويم يا امنا بيس بي دامات بنين منن بوب موم صلات وخني بوكو تك نينكو دان ماغال بو جيك بو خولي ما فكانتني داغا في نييو تي جامونا يوي دا نيوات في تاي خامني بيس بي امنا بنين كولور ناخ سي موسى موم دايرا بي بي نكو سوسي دا يسرال ليب يسلان mas ngaa ñëw ci ñaari yi ñëw nga ci màggal bu jëkk ishruna muharram xam nga ne am na ak yeesal bu ci am goo xam ne ni mel musu nee mel boo ñëwee Taïf gàmm gi tam xam ne gàmmu ni ñu ko gàmmu Taïf mu saam ci kër gi. ko bis bi itam bi mu tegee ci loxoy daayira bii di Ahibahul Khadim lu nusrat dinil qawim meneen bu la solaat mu bees moo xam ne wax dëgg yàlla ñu koy màggale nii mobilisation bi daawul am bu jëkk ba tax na nag macha allah. fi mu toll bu ñu la waxee ñaata kaamil la ñu wàccee ci bis bi ak ñaata lañu ñu durus ci ay xasaayid doo ko xaw a mën a gëm bis bi tam daa boole ñaari xew-xew li ñuy wax naan wenn saan nga lare ci yaari picc non seulement dañuy màggal 4 mars muy tegu xeeru jumaa ji waaye na bis bi dañ ko dañ cee occasionné wu di ci siyaare bi sëñ Mbàkke bis bi ci lañ ko daan siyaare waaye sëñ bi soo am itam bis bi tànt bii nga gis si biti boobu moo ko tax a buñu jëlé tax takkusaan ba day génn ñu ziar ko message bi mi wax talibé itam ci bis bobu la koy ja ci ziar bobu moom itam ci privito jalé jàllale message yi nga xamné mo la bëgg wax talibé ak da taxawé ci ginnaw Cheikh Moustapha mohammed mi suñ borom lëgëral ko ba lim bëgg lépp mu amé ko ni bëgg ci barké Serigne Touba nonu ko serigne mohammed Amar waxe ngir ñu waxtane li nga xamne moy Cheikh mohammed Moustapha. ak jumaa ji lu jàkk moos ñu defal ko ab laltaay ci wax tuuti ci ab Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne mooy way juróom te batale woon ko batale bu rëy bii ba Cheikh Moustapha def ci jëf ju rëy ji Cheikhul Xadim moomu buñ ko doon misaal wax ni mooy kan dañuy wax lim wax ni moom Abdullahi wa Xadimu Rasulihi jaabab yàlla la boo xam ne dafa fas yéene nekk liggéey katab yonentam ba di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bind loola yaxal ko ni bi nga xamee ne mi ngi tàmbali liggéey bi uaahidullaha ala ahzil kitaab bi xidmatin lil mustafa baabi sawab maa ngi fas yéene dëxalanteeg yàlla ci jël alquran def ko muy njëfandukaay li nga xamni mom la fasire soobo ci liggéey bi waye ubayyu al yawma rasul al mustafa bi khidmatin wa as'alu allah al wafa jaayante nak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama fas yéene nekk ab liggéeykatam li fek ma ngi nek ci kaw suuf mu melni dañ ko laaj ni ko liggéey bi kañ la ak fan la nara yem muni nima koy liggéeyle moy akhdimuhu ila dukhulil janna دار القرار والمنا والمنا دام كو فاسيني دي ليغيل باكار ماي تاب اجينا موي ليغي بو خامني رينا لال ليغي لا بو خامني سن بروم ديفال نكو كو موي جوفال فرا جوفال فرا موي لو خامني بيم كو امي ني جاخلي ون نييب سيني ايت ديف تا فاجو تالال موكو نيالان بروم نيكو ليكون بيكون سار مدن وجعل مسيريا جوفال فرا للورى مثل محاريني muy liggey bu rëy waaye nag ci biir liggey bobu am yo xamne dafa waxoon ni moo ko taxoon a Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jiro naari bat la yo xamne ne mohammed Amin Diop lagana moko bind wax ni sëñ Tuubaa neena na mo moo mu sóobu ci liggey bi ba ci jek muy la ilaha illallah ak muhammadur rasulullah القران كتاب الله الاسلام دين الله الملائكه جند الله di ko lim ba muy juróom mbenn mu juróom ñaareeli ko alkaabatu baytullah mu koy lim ba muy juróom mbenn mu juróom ñaareeli ko alkaabatu baytullahi wax moom Serigne Touba nag ci loo xam ne sëñ Mouhamed Amine Diop Dagana moo ko ni juróom benn yëpp def na ci loo xam ne ku ko jiitu mësu ko cee def te jàpput ni kuy ñëw ginnaawam dana ko ci defaat mu des benn nag mooy alkaabatu baytullahi yàlla subhaanahu wa taala ni mu dogalee lu bëgg ko noonu la dogalee taxawalewu ko ni mu ko bëggee woon ndax xam ngeen ne moom ci boppam ma waxoon ni àdduna yàllaa ko bindee mu mel ni fa maa qada ahadun minha libanatahu wala ntaha arabun illa ila arabin amul kenn koo xam ne li nga bëgg ci àdduna amee nga ko ni nga ko bëggee ba moom it bokk na ci yi nga xam ne bëggoon na ko muy taxawal al kaabaytu baytullahi waaye suñ borom dogaluñ mu fekkee taxaw ga waaye nag bëgg mi ngi fi dox na ci ay jéego itam yu bare bare ngir suñ borom subhaanahu wa taala digal gim digle julli muy ponk bi njëkk ci ponk islaam Sëriñ Tuubaa taxawal islaam rekk moo ko yóbboon ci géej gi moo ko jaxaseeg tubaab bi képp kum jàpp ci la la jàpp képp kum déggoolutoon ci kay wax ñàkk fonk ak ñàkk a taxaw julli moo tax jubawutoon ak yow ci ay wax bëgg googee nag ak itte joojee yóbbu ko ci bi mu nekkee ci biir géej gi wax nañ ni moom sax moo ko nettali am na bis mu samp ñeenti bant di ko gaafale jàkka tubaab bi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom dañoo dikk buddi ko di ko naqaral mu mel ni am na ci lool ab yég yëg bu ko xaw metti waaye yàlla subhaanahu wa taala xamal ko ni ko jëriñ metti lu ndax danañu la ko fayalal dana la ko fàttaloo foofa am na fa ay xawaariq yoo xam ne feeñal na ko fu moom Sëriñ Tuubaa ndax benn guddi dafa nekk di def loolu ñuy wax ay nawafilam ci biir loolu tubaab yi seeni quartier nekk fële ñoom itam di def seeni entraînement seen entraînement yooyu nag ñu gis sëñ bi jàpp ni moom daf leen a tàngal wala daf leen a yàpp na bàyyi li muy def te xool ci ñoom ñu daal di yebal ka nga xam ne mooy seen njiit mu dikk war a bàyyiloo sëriñ Tuubaa li muy def sëriñ Tuubaa suñ borom mi nga xam ne moo gaaw tamana wala daal di jox ndigal ahlu badri ñi wàcc ba jege ko taxaw di xaar digal di capitaine bi dikkee ni Serigne Touba dañoo bëggoon yi ngay def xew fi nga bàyyi ko Serigne Touba ni lee ngeen di def damaa bëggoon ngeen bàyyi ko te bàyyi ma ci lii ma nekk ñu ne ko mënta nekk Serigne Touba ni leen bàyyi gi mënta nekk ñu mel ni ku fa xaqante kooka daal di wax quartier gi nañ ñëw jëm ci sëñ bi ngir jëf Sëñ Tuubaa joxañ ahlu badri ñu wàcc xiiraay gi doxoon diggante ba capitaine ba dañ ñuy gis ñoom ñëpp ñu commencé tiit tiit di rab rabi tiit di rab rabi ba mu yàgg kilifa gi dikk ci sëñ bi ni ko ñii ñu mu doon sëñ Tuubaa ni ko ñii sa ginnaaw ñu mu doon. kattan bi ni ko ñii de ay nit lañ ñoo xam ne dañ leen a tàggat boole leen ak man ba lu ma leen digal ñu def ko sëñ Tuubaa ni ko ñii sama boroma boole ñoom lu ma leen digal ñu def ko. ca loola ca lañ daal di ko kon dañoo bëggoon nga wax li ñu noppi leen a gis sëñ Tuubaa ni ko delloon fa nga nekkoon. ñuy arrière di arrière ba dellu fañ nekkoon sëñ Tuubaa dellu ci ay naafilaam ahlu badrin لولا سنتو بعد مثالتي إلى نصرنا قد صارعوا مع خيولهم وخاف العدا منهم ومالوا إلى السلام تخواي بابا لقو سببا دول لنو رك سجل الإسلام يكت الإسلام وقت سنبرا وقت وكلمة الله هي العليا سنتو بعد تخواي جمالكو كلا أنا كلا تفر نينتي بنتي غافة كجاك غافة لكو جاك تبابي ديك بوديكو ما أنتي لكو ماتري defaat ay bantam suñ borom ni ko danañu la fay ay jumaa ca réew ma yoo xam ne dana la fàttaloo yii bi mu dikkee njaareem wax nañ ne bi muy tàmbali jumaa njaareem ji ba liggéey bi toll ci manees caa julli am na kum àndal ci mag ñi ko dafa fekk mu nekkoon ak moom foofee ca biir géej ga nee na ko xanaa lii de fàtte na loola waaye suñ borom dig na ba jëneen ji ko fii ci penk bi waaye nag li ma waxoon léegi li muy bëgg bëgg loolee ca penk bi yàlla dogal mu fekk ko def na ci ay jéego yu bari nag yoo xam ne sëñ Mouhamad Amin Diop Dagana nee na woo na sëriñ Mouhamadul Moustapha woo sëriñ Mbacke Bousso woo ak cheikh Mouhamadul Fadal ak cheikh Mouhamadul Basir ak sëriñ Massamba ak maam cheikh Anta ngir wax ak ñoom ci ñu defar jumaa jooju ak maam cheikh Ibra Fati ay ndigal la yoo xam ne bari na yu ca xew ba ñu génnee ku nekk am aw gisin waaye gisin wa ca mujj te mooy wu moom Cerno mooy lu sëñ Tuubaa bëgg day am kon nañ dem fexe ci mu am ba maam Cerno ca pësif ba ak dogu ga dikkoon na tàmbali ko fii waaye tàmbali boobee mu tàmbali woon moom it suñ borom subhaanahu wa dogal dogal sottiwut ci at yooyu ci la sëñ Tuubaa radiyallahu anhu daal di ñibbisi ci jumaa ji bàyyi nag Cheikh Mouhamadou Moustapha ak naal yi nga xam ne ak sumb ak nisir yi nga xam ne neseroon na ko yëpp mu teg ko ci loxoom fekk laata ko muy ñibbisi ci jataay yu ma la doon wax ne doon na ko jataayoo ak ñoo ñii am na ci jataay boo xam ne sëñ Mouhamadou Amine Diop Dagana nee na sëñ Modou Sa képp la jataayool xamal ko ni ko jumaa jii yi ñaan naa ko sama borom ba may na ma ko su ngeen ko defee xam du seen ndam la su ngeen ko defut sëñ borom dana wàcce ñu ko def daan ko nag yow Moustapha maa ngi lay xamal ne àqalu ko iznuka sam xel ci jumaa ji mooy sa ndigal lépp loo xalaat ba jàpp ni lu mën a taxaw jumaa ji la mooy sa ndigal jëfe loola wax ko it ni ko am na jàmbaar di daan wax amir jàmbaari xare woon joo xam ne saa bu xare mosaa jóg buñ ko nee pëkk pëkk yee ba mu jóg ñëpp dañuy tëdd dal te xam ne lu ñu bëgg a def amir dana ko def Sëriñ Tuubaa daal di ni ko yow yaay samay amir إذا أيقظتك حروب العداء فنبه لها عامرا ثم نم لول لكو سيدي واخ سيدي مودي سادات ديل اك لاخ سايم تاك فاسيينه نك دوخال ديغلي واجيرم يوي واي لا تاكامي اكس تي لولو دوك لا تي ليمو جيك ديف موم شيخ محمد مصطفى لا سنتي نيان موي بن لا benn la njaboot gi ba képp koo xam ne njaboot ak sëñ Tuubaa nga am ab soywaay saa boo bëggee faj aajo am ko jublu mu fajal la sa aajo loola sëñ Mudu Saa taxaw ci ginnaaw bu mu taxawee nag ci andi ko ci dëkk bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg muy Tuubaa ndax bi mu nekkee ci géej gi doon na ñaan boroomam naa ko ijaar rujuuyi ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamci alxalqi niirana دون كو وخيت لك دار السلام رب طوبى ليكون ربي فيه ما داعدوني مي دك بوم غنونا بغ سي دك يي يالا نتوكو موسيفي دك سيغ موسى رضي الله عنه تخاو تخواي بو مات سك تي انديكو سي دك دي فاسيينه موت لي نال اك نيسر ييغا خامني موم لا في بغون تايت سيغ توبا بوك نا نيان اب جمعه جو خامني ني نا سي دك فاي joxe julli juróom ndax ku nekk xam ne ne julli juróom mooy ponk bi jëkk ci fonk islam yi ginnaaw bu ñaari baatu seede jàlle ba taxoon muy wax ci matlabul fawzi ne naan sama dëkk bi jamaatan tuqiim assalawaatil xamsa wa ma dëban yaa xakim yàlla nga ma fa may mbooloo moo xam ne dañuy taxawal julli juróom yow mi nga xam ne yow yàlla yaay ma yow kon bi loolu lépp nag lam doon dindi mooy jumaa ji rek waaye nag mu doon lu jafe ndax tuba bi fi nekkon ci jamono jojja bëggu ñu won mu am ndax su amé islam siggi islam taxaw murit am ndam ta ñom li ñu gëna bëgg bañ moy loola waye nak li ñuy bañ bañ yàlla mom su bëggé keneen ku bañ la nga bañ day àndu ta la yàlla bëgg am ta yàlla mo ni yuriduuna li yutfiu nuurallaahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walaw karihal kafirun bañ nañ nuñ mën a bañe pexe yuñ mën a def ngir gàllankoor def nañ ko waaye yàlla nag dafa nam mu am moo tax mu kattanal Cheikh Moustapha may ko ak dal may ko am xeluk lengente ak tubaab bi ba lañ ko ko doon xañe ba tee ko amuy autorisation yàlla nooyu leen bañ jox ko ko biñ ko ko joxee mu def ci ma boo xam ne jaaxal na ñëpp ndax su sàmm ñorondaayu woon jéem koo taxawalal boppam kon dana nek lu jafe waye yàlla may ko muy ko ubbe ko may ko muy ko yaatu may ko muy ko rafet gis-gis wo mbolé ñi nga xamné ño doon ay sété ko ci kiirug bay ak magi taalibe yi daroon sëñ Moussa seigne Touba jox leen ben khitab bo xamné kenn ku nek ci ñom soñu na ci gis bopam ndax daf leena dajale ni leen wa'lamu ان الاراده ليست بمجرد كلام فحسب بل ان معها قرائن تدل على صحتها ألا الخدمة المحبة والخدمة بقدر الوسع والحال فمن صدق في حب الشير آثره على الغير دجال نيب نيلن ما نين دي خمال نين خمن اك مريد دو جوخنا سما بوب دي كسي ليس بمجرد كلام فحسب دوخي كسي واي بل انما عها قرائن تدل على صحتها دفا ام يمي لنك لول يو موي تخ ني مريد گوندل لولا بتي جك موي الصدق في المحبه bëgg sëriñ bi bëgg bu wér bëgg sëriñ bi nag bëgg gu wér moo lay yóbbu ci alxidmatu bi qadril wasi wal xaal di ko liggéeyal ca kam na nga ko mane ak kam na nga ko bëddee. kii ñi ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moo di sëriñ Modou Kane di troisième vice président di daayira Ahibahil Khadim tey jii nag ñi ngi fii nga xam ne mooy kër Serigne Moustapha Mbacke Mouhamed sëñ bi laaj bu njëkk bi bokk na lan moo waral 4 mars. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu seetaan na leen di nuyu di leen siyaare di leen jaajëfal coono yi seen teewaay rafetlu seen teewaay di tontu rek ci li nga xam ni moom nga laaj mooy màggal gi lan moo waral 4 mars 4 mooy bis bi nga xam ni moom la Cheikh Moudou Moustapha tegoon xeeru jumaa yi Touba. ndax bi xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam wàccee ci 1927 mu dox kayit yi ba yàlla dogal mu jot ci kayit jumaa ji mu def diggante bu xaw a diire waa yàlla dogal bi mu jotee nag ci euh, le 4 mars 1932 ci la teg xeer wi nga xam soo seetee diggante date boobu ak bi sëñ Tuubaa ne la 27 ba 32 loolu lépp ci toppatoo kayit yi ak batle gi ko sëñ bat batle woon mu bëgg a mottali ndigal li nga xam ne sëñ Tuubaa woon te mbokk ci yi mu ko dénkoon muy jumaa ji taxaw moo waral mu doon ci jànkonte jafe-jafe yooyu ndax coono bu ne dañ na ko ci am na sax ñu wax ni Cheikh Moustapha nee na leen 27 bi sëñ Tuubaa wàccee ba bi mu jotee ci 32 bi muy taqeelu jumaa ji diggante bi yëgu fi fu mu tëddee nelaw ndax lu ko sëñ Tuubaa batale woon la te mënul woon a tëdd nelaw te lijjanti ko loolu mooy sababu 4 mars ñu bëggoon a xam tamit ginnaaw bii nga xam ne mooy 1932 boobu di 4 mars ba tey ji di 2016 waaye tamit ñan ñoo ko njëkk a màggal. waaw ñi ko njëkk a màggal rek mooy daayira euh, fédération des groupements religieux et culturels de disciples de Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Gaynde Fatma moo ko taxawaloon yàlla dogal jamono yi sëñ Mbàkke Soxna Lo nekk ab xalifaam ñu continué di ko màggal waaye nag màggal nañ ko ñaari at ci kanam sëriñ Cheikh. ndax sëñ Cheikh 78 la wàccub liggéey waaye waaj ga màggal nañ ko ñaaraat ci kanamam mu wàccub liggéey yàlla dogal sëñ Mbàkke Soxna Lo nu fi ab xalifaam digal ko waa Muwaaridu Touba ñu di ko màggal ba ba ba ba 1900 ba 2016 bi at mu ne màggal nañ ko ci anam goo xamante ni bii dina dëppoo ak li bis bi laaj ndax bis bi ñu ngi koy màggale ci jàng alxuraan ak xasaayit euh, suñ koy yendoo màggal ci googu fànn. ba añ ba noppi ñaar dañ def ay waxtaani diine soññ mbooloo mi ci lan moo di ak taalibe ndax lépp ak taalibe ko sabab ndax sëñ Mourou Moussa coono yi mu doon jànkonteel ci ba jot ci téeri jumaay ji lépp rafetal taalibeem diggam ak ni ko sëñ Tuubaa sante woon dafa su dara des ci loolu itam dañ ci fàttaliwaat nit ñi soñ ñaat leen ci ba ba ba ba takkusaan ñu siyaare sëriñ bi fi sëñ Mohamed Mbacke ba nekkee daanañ ko def ci moom ba yàlla dogalee ab liggéey sëñ Moustapha Mbacke wuutu ko nooy ñaan sunu borom guddal aw fanam moom itam euh, noo ngi wéyal siyaar boobu ci kanamam saa boo xamante ni bii yéen doon nañoo màggal bis bi nii ba ñu jul takkusaan mboolem li aju ci ahibahil xadim li nusrati diinul xawim bii bu section bi ngeen sëñ Abdoulaye Fall Moussa moo ko jiite ak soxna maam Boussa Mbacke ak sëñ Moussa Gueye ma nekk seen troisième vice président seen ndaw euh, noonu nu ko daa defee rek at jamono yu nekk noonu ko def siyaar bi ginnaaw takkusaan lay am ci sëñ Moustapha Mbacke Mohamed ñu tok ci kanam yeesal suñu jaayante jébbal ko suñu liggéey diglu ko lu mu digal nu def loola lu mu tere ñu bayyi loola. ñu bàyyi mu dugg lii ñu bàyyi mu dugg lii eh, xam ne nii moom mi njëkkoon a nekk xalifa général kullu murit njëkk a nekk premier xalifa Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba amal na ko ni ki tey ji tamit di 4 mars yemook àjjuma 2016 yi nga xam ne wàcc nañ fi jàngum kaamil ak i xasaayit waaye tamit li nga xam jëm ni salaatu alal nabi ni ki noonu ci waxtu wi ñuy àddoo ngeen di teewlu ñi ngi xaar ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha dina jébbal li nga xam ne mooy seen addiya ni ki noonu tamit gis nañ fi li nga xam ne mooy délégation yu xam ne am solo ku nekk ñëw di fësa sa kóllëre ci nga xam ne moo di Serigne Moustapha Mbacké Mouhamed jërë ngeen jëf wala Kopp mi nga xamni mo yor àllarba yi di ko laaj ak mboolem mbolo mi nga xamanteni ño top ci seen gannaaw ak Soxna khadi job mamit it Soxna job bi Cissé ñoom ñu wax ni ñu ngi yëkëti kaddu yu nuyoo ak kaddu yu ziar ak kaddu yu ñaan di bolé seen jëm mu doon wenn say ñu takkato fasiyene yéene wi ñu sasoo muy ñaan sun borom tabaaraku taala mu yagal la yàlla dolli laa sàmm dolli laa dëgëral ba ndono li nga fekk di ko sàmm dara bañ cee mejje ñu wax ni ñoom seen xol sedd na seenum xel itam dal na seen yaakaar yàkkaliku na ki taxawaay bii nga taxaw ak bàyyi xel gii nga leen di bàyyi xel ak yaatal gii nga leen yaatal ci sa bopp muy nangu gi nga leen nangoo jaboote eh, loolu lépp gis nañ ko ñoom nag ay mag lañ xëy na seen doole day gën di néew waye seenub xol dara dara dara dara wàññikuwu ci ca pass pass bay amone ca départ ba tay ji jii dara wàññikuwu ci ñom dañ ñu ni japp nañ ni wacc mom ben yoon lañ koy defé moy bis buñu takké takkee seen i tànk ci ak jak té bu boba itam ci la seen yaakaar di gëna a ko la seen jot di gëna rafété ni ca la seen bi doon dik kérok lañ ci gis lu kawé seen jot nak lay ñaan lañ am ñom ñu ngi ñaan ci jey barab bi ak ki nga wootu ci barab bi yalla mi sam te dara taru ko sun bam yalla na la sam ba nga àggale liggéey bi fu kawe sa njoot ñoom nag ñu wax ni dañoo jaboot jaboot gi ñenn ñaa ngi fi ñenn ñaa ngi ci àll ba waaye fu ci waay man di amit ak fu ci waay man di ne lu mën di rek la bëgg muy addiyaa ku des mooy seen mooy seen pas-pas mooy seen yoon ñu bëgg nga ñaanal njaboot gi ba li nga xamante ni ñoo ci génn suñu borom dellusiwaat leen ci jàmm te jox leen lu ñu indi ñi fi nekk itam suñu borom taxawu leen bañ am luñ mën a toogee mën a sàmm seen ngor sàmm seen diine ñi ñu yi ay ci gone yu jigéen itam jamono rëb na te lii tasaare nit ñi bari na nga ñaanal leen ba kenn ku ci nekk fa mu nekk suñu borom sàmm ko ba keroog muy nekk ci loxo yu wóor ñoom itam ñu waxoon ni ñaan gi ñoom dañoo jaboot duñ andi ndox nga cey tef li ñu di ko séddoo duñ andi suuf itam nga di ca tef li ñu séddoo waaye dañoo bëgg nga siggi xool leen rek ba ti yalmaan yoo xam ne buñ fi jógee kuñ tajal aajoom faju ndax ne sëñ Moussa dafa am benn naar bu dikkoon seet si ko fii doomu Cheikh Sidiya la bañ waxtaanee bay dem naar bi ni ko dama bëggoon nga jox ma wenn turu yàlla ci turu yàlla yi la fi seen bay bàyyil ma jox la wenn turu yàlla ci yéen fi sunu bay bàyyil sëñ Moussa ni ko nun sunu bàyyi bàyyi lu nu fi turu yàlla lim fi bàyyi ci suñuy bët la ko def lu nu xool mu mel na nu neex loolu nag lañ jàpp ni du fi jóg ba mukk waa amma ma yanfa'u nas fa yamkus fil ard lii jëriñ nit ñi moom képp koy dem doo ko yóbbaale mag ñi jumtukaay yi ñu doon liggéey mi ngi mu fi lañ amoon ci liggéey bi nag yóbbu nañ jumtukaay yooyu lañ bëgg nga taxawu leen ci leen ba bu ëllëgee duñ dajeek benn jafe-jafe nekk ci àdduna yi suñu borom dana naatal seen seen seen seenu toogaay barkeel seenu njaboot ba liñ doon nisar di ko yéene suñu borom defal leen ci lu kawe njot ñaan daal lañ am te noo ngi ñaan bu baax baax suñu borom doon la sàmm doon la taxaw barakat Cheikhul Khadim yi kaddu lañ moo xam naa ko jottali ñu ngi dolli seen loxo raxas seen dab bëgg ku ci defal lu am njëriñ lu ab taalibe di fàggul ab taalibeem mu am njëriñ daal ñoom ñoo ngi ñaan ñu fàggul leen donte seenum xel àggu ca donte man mi ñuy wax loo itam samam xel àggu ca waaye lépp loo xam ne taalib bu am ngërëm dana ko soxla woo ñoom soxla nañ ñu ngi leen ñaanal loolu wasalaamualeykum wa rahmatullah rek ne te lii bokk na ci ñu fas yéene bis bii di bis bu yàgg ci yoon yi muy bis bu ñuy fàttaliku liggéey bu màgg bii ñu jàkkaarlool sa maam di baax ja tàmbali woon ko di Cheikh Mouhamadul Moustapha tax bi ñu xëyee ba léegi ñu waajal ko ci jàngam alxuraan ak xasida ak salaatu ala nabi daf ko hàddiyee sëriñ bi ak mboolem ñoom àndoon liggéey bi ñaanal la si suñ borom yàggal la fi ba li nga yéene ci liggéeyee ko Sëriñ Tuubaa suñ borom defal lu kawe sa njot te na ànd ko ak yow sa son bi nag waxoon ni daan tënk seeni kàddu muy ñetti kàddu bu njëkk bi dana jox bay Ablaye Fall Moussa mi jiite sa son bi mu yëkkati ay kàddu si turu mbooloo mi nga xam ni ñoo topp si ginnaawam yëpp bu noppee dana jox kàddu gi bàyyi Sëriñ Jóob Maxtaar mu tudd mbooleem dayo yi nga xam ni dañoo aju ci ahibaayi sa son bu Touba mu tudd leen waaye mel na ni mbooleem njaboot Cheikh Moussa gi ak Sëñ Tuubaa yi ñëpp na fi waaye si ñi ñi ci mën a tudd daneen tuddaale waaye si bisu tey bii suñ jëw ñi nga xam ni ñooy bureau fédéral bi ñoom it ñu teew fi ñooñee ñëpp bàyyi sëñ dinañ tuddaale suñ jëlee si kàddu googu nag kàddu gi nga xam ni mbooloo mépp wax nañ ko sëñ Cheikh bi di nga ko jottali muy kàddu yi jaayantewaat at feddaliwaat suñu taalibe te fas yéene laxasaayu topp sa ginnaaw di déggu say ndigal loolee sëñ Cheikh Vieux danga ci dëkk ñun suñ ci jugee nag ñun ñëpp ñu maasandoo teewlu bu baax kàddu yi nga xam ni miin nañ ko si jotaay bii saa wu dikkee di kàddu yu njariñ di kàddu yu xéwal di kàddu yu yokkuge kàddu yooyee di bàyyi ko si yow di jëm ci ñun kon nii leen tënkee programme bi ñu ci vocal gi bàyyi Abdoulaye Fall Moussa. la sant baax a baax ndax sa teewaay bi metti na euh, yitte yi bari na mënoon nga noo jox ba waxtu li nga bëgg a wax lépp nu waxal la ko ci mbooloo mi ndax mbooloo mi ñëpp taxaw nañu laxasaay di déglu sa ndigal kon man lu ma def ma dalal leen ci jàmm rek te di la jéglu coono bi te ñaan mbooloo mi ñu ngi nii rek li li ci ñoom nga defal leen ko. lolé man moy samay wax mbolo mi daal ñi ngi ni sey loxo yow dong la ñuy déglu no ngi ñaan nga defal ñu li gën ci ñun wa salaam. ñaan sun borom yagal ko lool yagal ko ci sunu kanam te sun borom defal ko ak wër mom ak ñi mu àndal bi ñep lu mu yéene ci yoon ñu ko bëgg sun borom bi nga xamne mom rek moy maye te lu ko neex rek lay def toobaram rek lay jëfé yalla mu bok ci liko sopp mu yagal sëriñ Moussa ci sunu kanam mu yàgg ci ginnaaw sun borom defal ko ak mbay ginaaw loolu li nga xam ne noonu lañ ko xamee rek ci bis bi mooy bisu boo xam ne si section Ahibahil Khadim bu tuubaa ñoo ko baaxoo di ko jiite ànd ko ak seen bokki taalibe yi yëpp di fàttaliku bis boo xam ne si ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké tàmbale woon liggéeyu jumaay Touba booba bis bu ñu di ko fàttaliku tàmbale woon ko ci ndigalu Serigne ak Serigne Momen Mbacké ba exige loxol Serigne Moustapha mii di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu li ñu ko waxee woon rek ñu ànd ko itam ñu baree bay waaye nag ñi nga xam ne moo ci jiitu mooy confédération bi nga xam ne si moo lëkkale euh, fédération yi ay bàyyi xadim yi te moom Mouhamadou Amine Baara Mbacke nekk ci bopp bi mi ngi nii moom ak Serigne Fallou Mbacke ak njabootu Serigne moom it Mbacke gëpp waaye itam mu teggoo toogoo ak Moustapha Gadiaga mi nga xam si moom sës ci moom waaye itam ci biir loolu euh, Serigne Mbaye Gaye nga xam ne moo jiite mbooleem ansaaru yi ne yi nga xam ne ñoo nekk Italie moom itam mi ngi fi teew ñi nga xam ne ñu ngi tënk ci jamaatul muridiina bi nga xam ne sëriñ Bara Lo moo ko jiite moom itam mi ngi fi teew ak mbooloo mi euh, Serigne Bara Samb mi xam ne moo jiite euh, diaspora bi moom itam mi ngi fi teew waaye itam Serigne Mbacke si la mi nga xam ne moo jiite mbooleem seex yi yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi moom itam yónnee na ci ab délégation boo xam ne sëriñ Serigne Ibra Jëmb Ndiaye moo ko jiite. ànd ak Cheikh Darou ak mboolem seex yi nga xam ne si mooy Cheikh kër gi ñu nii nekk fii Serigne Moustapha fi wetam ba tey itam ñu bokkoon ànd ko ak daayira yi nga xam ne si ñooy daayira yi nga xam ne ñoo bokk ci section añ bàyyi xadim bu Touba te nekk ci bopp bi di Darou Khoudoss añ bàyyi bu Darou Khoudoss ak añ bàyyi Darou Naylul Maram ak añ bàyyi Moxlis Sina ak añ bàyyi Rindamba ak ak añ bàyyi xadim bu Minnatu ak añ bàyyil xadim bu Dakar ak añ bàyyil xadim bu Touba Taïf ak añ bàyyil xadim bu Darou Ndiaye ak añ bàyyil xadim bu ansaaru diine 1 ak añ bàyyil xadim bu ansaaru diine 3 bala ak añ ak añ bàyyil xadim bu mu tàñ diine 2 ak añ bàyyil xadim bu ajur bu muhajirina un ak añu bàyyi xadim muhajirina deux ak añu bàyyi xadim Touba Bass ak añu bàyyi xadim jannatu nayin ak añu bàyyi xadim xudaamul xadim ak añu bàyyi xadim sulamul jann ba tey itam ñu am ba añu bàyyi xadim rahmatulahi un añu bàyyi xadim bu rahmatulahi deux añu bàyyi xadim bu rahmatulahi trois ak añu bàyyi xadim bu tayib lansaar ak añu bàyyi xadim ñu taawul nasri ak añu bàyyi xadim Matlabul Fawzayni bu Tuubaa ak añ bàyyi xadim Matlabul Fawzayni bu Ndindi ak añ bàyyi bu mu jaay rëy na ak añ bàyyi xadim Daarul Naim Surra ak añ bàyyi xadim Tuubaa Banal ak daa añ bàyyi xadim bu Daarul Xuddoos Daarul Manaan ak añ bàyyi xadim Daarul Xuddoos bu Saan Musoobe ak añ bàyyi xadim Matlabul Sifayi bu Nebooji ak añ bàyyi xadim Daarul Monti ak añ bàyyi xadim Usnul Maab Tindóodi ak añu baayu xadim bu nay de Mbàkke ak añu baayu xadim bu kër Makumba Kebe ak añu baayu xadim Touba Sourong ak añu baayu xadim Daarul Salaam Jolof ak añu baayu xadim Daarul Xudoos Jolof ak añu baayu xadim bu Ballooji ak añu baayu xadim bu Tumpu bu Tabu Jël ak añu baayu xadim bu Daarul Xudoos Jëleel ak añu baayu xadim bu Touba Tureel ak añu baayu xadim bu Tumpu Jaw ak añu baayu xadim bu Tumpu Saar ak añu baayu xadim bu Makka Tureel ak añu baayu xadim bu Cuureen Touba Touba Coon ak Ayin Baal Xadim bu Mesara Maam Balla ak Ayin Baal Xadim bu Ndangu Sàll ak Ayin Baal Xadim bu Darul Nayin waa kër Sëriñ Modou Sow Sëriñ Modou Aw Cissé ak waa daayira Ayin Baal Xadim bu Darul Rahman Darul Xudóos ak Ayin Baal Xadim bu Minnatu Lay ak Ayin Baal Xadim bu Minnatu ak daayira Ayin Baal Xadim bu Baaba Njóobeen ak Ahibahil Qadim bu nasrun minallahi da ak Ahibahil Qadim muhsinina wal muhsinat ak daayira Ahibahil Qadim ñu taxul mu naan ak daayira Ahibahil Qadim nañul maraam kaye itam li euh, nga xam ne ni dañu koy defee at mu nekk rek suñ bokki section yi nga xam ne suñoo bokk ci fédération bi nga xam ne am na sëriñ Mouhamadou Amine Ba jiite section Ahibahil Qadim bu Dakar seen délégation ñu ngi fi section Ahibou bu Kees section Ahibou Bàyyil bu Mbuur section Ahibou Bàyyil Xadim bu Kaolack section Ahibou ngir di neew section Ahibou bu Koungheul section Ahibou Bàyyil Tamba section Vélingara section Ziguinchor section Diourbel section Mbacké Bawol section Taïf section Niakhène section Sagata section Kébémer section Louga section Sédhiou section Mérina waaye itam ba tey itam ñu ànd ko ak daayira yi nga xam ne mooy daayira yi nekk ci buntu kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha ñoo nekk ci biir dëkk bi daayira islaahu daayira bu waa ngi ci jotaay bi ci suba lañ ci ñëwoon Serigne Cheikh Mbacke Madina ci boppam yónnee na Serigne Cheikh Mbaye ci suba teel na fee ñëw lool ànd ak waaye ba tey daayira taxawulu ci ñoom tam ñu ngi ci jotaay bi mu waalidu lat yaar waa kër sëñ Axma Aliou Mbacke ñu ngi fi man woo Nooreyni kër sëriñ Cheikh Aliou Mbacke ñu ngi fi ñoom itam sëriñ Cheikh Aliou Mbacke ci ñëw na sànq ci biir kër bi mun na si dóor bu sëriñ Baara Mbacke Mamadou Dane ñëw na Sali Kiina waa kër sëriñ Sali Mbacke ñëw nañ kër Soor Sixaar waa kër sëriñ Mamadou Dane Xalibo ñëw nañ ay bàyyi Cheikh Assel bu daayira kër Cheikh Assel Daaru Assel Ndiaye moom ñu ngi si biir jataay bi waa kër Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbakke ñu ngi fi waa kër Serigne Serigne Daaru Touré bu ndogal ñoom itam ñu ngi fi te Sowal Sixaar bu waa kër Baye Sine Diaw Mansour ñoom itam ñu ngi fi ci biir loolu itam seex yi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci jataay bi Serigne Cheikh Mbaye Diop bu Mbakke Bawal ànd naag délégation fekk si Serigne Cheikh Jëmbu Jaay mi nga xam ne moom la Serigne Mbakke Fat si la yebal mu teewal ko fi teewal fi mbooleem seex yi aju ci yow ak euh, Serigne Baara Mbacke moom Serigne Moustapha Mbacke moom sëñ Abdoul Aziz moom itam xëy si woon na fi yàgg na fi lool ci jotaay bi loolu mooy bokk yi nga xam ne ak wëlëri yi bokk si nañoo ñun bis bu mag bi bis bu tedd bi fas yéene def siyaar bi ànd ko ak yow Serigne Moustapha ñoo ñaan suñu borom yàggal la suñ kanam ba tey itam ci biir loolu kàddu yi cant yi du doy Serigne soxna maam Boussa Mbacke ni ñu ko waxee léegi ak Serigne Ablaye Fall Moussa mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ jiite ñu ngi leen di sant bu baax a baax dina woon nañ leen ko seeral waaye itam soxna maam bu sëna waxtu wu nekk rek dañuy bëgg nga gën koo ñaanal bu baax a baax a baax ndax coono yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy daj guddeeg bëccëg fu nekk ñoom ñoom moom ñooy ànd di fa dem loolu waxoon nañ ne bu ñu ñëwee ñu seeral la ko seeral cant yi mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci euh, section bi fu ñu ci dem na sa jataay bi loolu la ñuy jàppee kon nag te lu ñu defal rek yàlla si jëm ji rek tax ñu ngi ñaan suñu borom bi faj aajo nga ñaanal ñu suñu borom mu faj aajo ci sa daraja wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu déwénit Fall Moussa ñu ngi lay nuyu ci turu soxna mam Bousso Mbacké di la nuyu ci turu mu Moussa yi ak mbooleem jëwri ñi liggéey bi di nuyu ci turu ahibaalu xadim gépp sëriñ bi mbooloo mi nee nañ bi ñu la nuyoo ba noppi ñoo ngi lay ziar ziar boo xam ne ziar bu dëggu ci ñoom seen xol lañ ko tibbee di ñaan sunu ziar bii nag nga booleel nu ko ca ziar ba taxoon sa maam ju baax ja naan إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا سرين بي مولومي نوي نوي زيار لوايلا نيني نالا جوتلي سينو كانت كانت بو خاني بو امي فوم تامبلي امول فوم ndax da noo xàllal ngir moo xam ne ba ñu ca jaaree diir biñ ci jaar lu nu sori woon jege nanu lu nu jafe woon yomb nanu lu kenn mu sa gént ne mën naa am am nañ ko sëriñ bi fii mu ne mag ñeeg gone yeeg jigéen ñi ñépp àndandoo doon benn sëriñ bi xawma kuy déng-déng de ak ku bañ waaye ñun ñii nga xam ne nangu nañ cent pour cent de kenn ku ne ci ñun yëg nga ci sa xol mbirte moo xam ne kenn ku ne am nga ci ñun am nga xol bu sedd boo xam ne yàlla rek la ko seet te loolu yow rek yaa ko may yow rek loolu nag moo tax sëriñ bi mbooloo mi na sëriñ Abdoulaye Fall Moussa defoon dañu caa jiitu waaye fii mu ne fii mu ne mbooloo mépp maas nañ ci wékki laxasaa wékki kaale yi ci ndodd yi takku ci ndigg li fas yéene ànd ak yow nag liggéey bii ndax fii mu ne ku ko defutul ngir yàlla tam war koo def ngir yilla ndax liggéey bii mënul indil bu nu ci daray àllaaxira nekkutoon tam suñu njariñul adduna war nu koo jaral ndax organisation bii am léegi ak mobilisation bi ak kenn ku ne la nga yëg sa te mënoo koo wax yàlla rek ko xam te bii rek moonu ko indil te bu doon lii loolu du am loolu nag tax na mbooloo mi mobilisé wu kenn ku ne takku nga mbooleem fukki section yi ak benn ñaar fukki section yi ak benn ñépp a boole seeni tuum jébbal la adduna ak àllaaxira topp ci sa gannaaw loo bëgg danañ ko def te lépp loo xam ne du sax bëgg doo ci tag suñu tànk sëriñ bi mbooloo ñépp booloo nañ doon benn ñépp a topp ci sa gannaaw sëriñ bi li nga bëgg yàlla dana ko def insha allahu taala mbooloo mi nag nee nañ ñi ngi lay ñaanal suñ borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu gën laa dollee dimbalee fanu gudd wa ànd ko wir sëriñ bi mbolo mi nee ñi ngi ñaan suñu borom dox sa digg ak bepp non te yeggale bepp naal ak bepp mibet bo xamne ne nga ko wala yaa ngi koy waji tambali yalla na yegg sëriñ bi ñi ngi ñaan suñu borom dox sa digg ak bepp galankor ba liggey bi nga sóobu nga yeggale ko fa nga ko bëggee ñun mbolo mi tam ñi ngi lay ñaan nga dimbaleenu nu ñi fa yéene ànd ak yow dimbaleenu fa nu dimbaleenu ñaanal nu suñ borom fa nu gudd waa ànd ak wér ak wérle dimbaleenu suñ borom dimbaleenu itam euh, xéwal yu baree baree bare te musal ñu ci mbewte musal ñu ci mbewte dimbaleenu xéewal te musal ñu ci mbewte te dimbaleenu xolub joxe suñ borom dimbaleenu itam pas-pas yu dëggu te dimbaleenu ak sellal ci lépp lu ñuy jëf ko wax ak yéene bi may tënk sama kaddu nak moy sëriñ bi fa nga ñu jëlé fa nga ñu jëmé ko gën jaa jëfé sëñ bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki taalibe yi fi teew yeb leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul mustafa ak ci digalam ñu ngi ci nuyo bi ci fi nekkal serigne Touba di Cheikh Seydil Mokhtar serigne bi ne ngi koy ñaanal tay ñaan nako ñepp ñaanal ab liggéeyam sot ci leetan ànd ko ak moom mi ngi nuyoo ko siyaay itam cheikh ahmadul moxtaar bi fi nekkal cheikh mouhamadul moustapha mu ñaan mu yàgg fi lool ak waajur mi tedd yi tekk ci bopp di cheikh abdul fatah mi ngi ñaanal njabootu sëñ tuwaa gépp neen na sama borom dimbali leen ba ko ci ne sa yéene ci li nga bëgg a liggéeyal sa maam sëñ tuwaa cheikh moustapha neen mi ngi ñaanal ñëpp loolee ñu ngi nuyu nag mboolem ci teew jotaay bi te ci jiital soxna maam bu sa Mbàkke mi ak sëñ Abdoulaye Fall ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi di nuyu itam bu baax mboolem ñi ngi ko sëqal ñëpp te sëñ Diop tudd leen léegi muy dongay laxasaay yi sëñ baaraloo ñoom muy dayre ansaaru diini yi sëñ Mbaye Gaye muy sëriñ Cheikh sëriñ Mbàkke Fat Silla mi jiite seex sépp ak seex si fi teew sépp sëriñ bi gis na leen ak nag mboolem dayri ji ak yëpp rek bayut benn sëriñ bi nee na mi ngi nuyu kilifa yi dayri yëpp fu fi waay bàyyi ko ci biir Touba ak ci bitti tuubaa wala ko amoon yéene ñëw ñëpp rek nee na na la wóor ne ak kentam ak seen ci yow waxtaan wi nag nee ndax waxtu waxat wi moo ko joxe nii ndigal bi ko nii dafa wax ne tey dafa bëgg nu waxtaanee tomb bu am solo ñaar la benn tomb bi mooy jiitu loo xam ne sunu njëriñ nag suñu njëriñ yàlla xaar ci bu ñaareel biir di ay soññee ak i cant yu jóge ci moom yoo xam ne ni ko sëñ Cheikh bi waxee léegi njëriñ la lu ñu tàmbalee teg suñu loxo te liñ ma lañu ëpp yaakaar ci moom. li bëgg na waxtaanee ko nag nee na mooy day loo xam ne gis na ne kenn ci ñun mënu koo ñàkk. kenn ku ne boo xamoon fu mu am da nga fa wuti fa boo xam lu muy jar da nga wuti njëgam te loolu neen mooy ak taalibe ak lëggéeyal sëñ Tuuba yaar yooyu daal la bëgg nu fàttaliku waat ko tey baax a baax ndax beesal fa sakkiri in nafaati zikre ak murit nan la gisee ak al muridiya ak murit nan la gisee ak taalibe ak taalibe mooy lan waaye ab taalibe boo xam xamee mooy lan nag nooy lëggéeyal sëñ Tuuba ndax lu nit lu muy def daf ko war a xam muy xam ne nag ne ñu bari jaar nañ fi ba jàll te moos ump na leen li leen fi andi woon bàyyi leen fi te mooy jaamu yàlla te loolee kat nee ci la lépp nekk jaamu yàlla googu suñu borom digle yónni ko rasulullahi salaa sallam mu ñëw fi bir ba jóge fi sahaba yi di ko awantoo ak daay yu baax ba mu dem ba sori dafa mujj mel ne la yéefar daan wax ne ko wa fi azanina waqrun wa min baynina wa baynaka xijaab loolu daa daal ñu bari ba sunna ak lislaam mel ni luy bëgg a ràpp mel ne lu raaf mel ni sax lu fi nekkatu sëñ Tuubaa ne sëñ Tuubaa ne sa feet ak suñu borom andi ko sëriñ bi gis loolu yi moom xaadimu rasul daal di taxaw temm nag ci lislaam jooju yi nga xam ne moo gën suñu borom ba mu wax ne inna diina inda llaahi lislaam moom dem bay rab سيري بينا خادم رسول الله مومو دا فا ديل اندي الاسلام جو دا فاي صاح با داك تا دوتو راب دوتو راف دوتو تنبهوا يا ايها الشبان خادكم الى الهدى المنان في ان سنه النبي في ان سنه نبينا الامين عليه افضل الصلاه لكل حين كادت تراث رسم دار قد عفا في ذا الزمان لمدي قد عفا سنتوا بنت nee na xam leen ne bi may ñëw kat fekk naa diine ji mel ni kër gu gent kër goo xëy daa gent dara néewatu fa léegi nag li ma bëgg nag mooy fas yéene taxaw temm nag ci sancaat kër gi te yeesalaat ko diini siwa islaamihi laa yaxmadu indal ilaahi waaye nag wa bihi nu jadd ñëw na ngir yeesalaat bi ne moo tax ci loolu xaadimu rasul bi mu ñëwee fekk na ñu ko kenn ko nag alhamdulilahi rabbil alamin bay na ci sas gu yaatu ci ñu ko fi jiitu won waaye nag ku nek nam daan baye ak fu daan baye ak yoon moom daan jaar neena bi sëñ Tuubaa khadim rasul ñëwee rek ndax ñoy ñe kenn ku ñen fa nga daan jaar da nga wo sa mbolo tuddi tuddi sam am sam ngir nga wut noko ko tudde am na ci ñeñ sax seen jëmmi bop lañ ko tudde wala ci no wala seenu dëkk sëñ Tuubaa xam ne lool bu dé bëkk man na gert bu dé dee turturoo man na fa jëm mën na koo fàtt mu sét li lu gert du fi joggé mu tuddi ko mom yoon yu jaar man arada wajhal laahi bëgg yàlla mu tudd ko yoon soxla yàlla mu dul lee sëñ moom noonu tuddee aw doxinam doy na ko sëkk nag loolu nag bi mu amee Cheikh Moustapha al Karim mu baax ma maamam ju tedd ja ko ci sonnoon na lool ci ci xamal nit ñi taalibe yi ak taalibe mooy lan ndax Cheikh Moustapha di mbind maa ngi nee na ak taalibe ak murit du wax kese inna al irada laysat bi mujarrad al kalaami xas waxsala lay wax nee na taalibi du wax kese de ñëw ne ni Cheikh Moussa jox naa saa bopp dem sama yoon nee na déedéet bal inna maaha xaraina dafa am lu muy àndal tadullu ala sixatiha waxee moo tax sa taaliba wér ala wahiya sidqu fi lmahabbati wal xibatu bil neena da ngay bëgg sëñ bi bëggel goo xane ne na leen sa xol bi buñ ko sété moom dong lañ ci fekk ben ngok bo ci noppé nak du séen taw tam na ci liggéeyal ci fi la yàlla tolloole Cheikh Moussa noonu la définir ak mourid noonu la définir yoonu mourid sun borom wax ne tib sallallahu alayhi wasallam ne ko wasbir nafsaka maa allasina yad'una rabbahum bil qadawati wal asyi yuriduna wajhahu al iradatu ko ñewnu fofu ci alquran yuriduna wajhahu motax tax sëñ Tuubaa andi yoonu mi tuddiko muridullahi ñi nga xam ne yàlla rek lay soxla woo ñi fi sëriñ bi it Cheikh Moussa na ne nañ daan yare seeni taalu bi ak di leen yóbboo ci yàlla daa wóote am na ñoo xam ne dañ daan teg seeni bi coono yu métti lu demee di leen di leen digal koor dañ koy saxoo wala saxoo fanaane xool bi set wala wéet ba ci jaxasoo nit di leen liggéey liggéey luy wet am na ci ñoo xam ne daanañu wayfal seen diggante seen seen seen seen njaboot julli juróom ak lenn ci la ak lenn ci ay wérd ak yu daw am na ci ñoo xam ne nag ci digg bi lañ nekk dañoo metti lu ñu seen ab liggéey waaye woyefa luñ sëñ Tuubaa nag bi mu lépp la jël boole ci boppam lépp moo tax ñi def ko daan jox seen bopp am na ñoo xam ne danañ leen teg loo xam ne dañuy dema dema dem ba yàttan dañoo far génn àdduna am ci ñoo xam ne lu néew la leen def loo defar seen biir am ci ñoo xam ne buñ accès bu leen xoolee seen biir def bu yeewee leen ñu dem sëñ Tuubaa loolu la ko suñu borom defal illa yaqaada allahu maa lam yakun wala yakunu abadan li mumkin mu rabbuna yi jëkk yi la mu leen may li mu ko may moom suñ tubaab daa daa ëpp loolee léegi nag mu daldi nag indi yoonu murit wii nga xam ne lépp lu lislaam soxla woo rek mi ngi ci mi ngi lépp lu lislaam soxla woo rek mi ngi ci biir yoon wi mu tuddi ko al muridiya te nee nañ al muridiya taani al abda saaya li nay ridallahi murit moom mooy jëmm ji dox ji wut ngërëmal yàlla koo gis ku nekk rek bu nee murit laa rek neel eh kuy wut yàlla nga ne fii xarakaat yi wa sakanaat yi même booy dox booy lekk booy naan booy xoole booy geesu lépp looy def rek da ngay jàpp li war nga ci ngërëmal yàlla kooku moo di murit koo xam ne daraam du neen sëñ sëriñ bi nee na loolu moo di murit ku fas yéene sa dara du neen booy dox booy wax booy toog booy noyyi lépp looy def rek nga di ci wut ngërëmal yàlla loolu moo tax sëriñ bi tudde ko noonu nii nee na gouverneur général mos naa laaj sëñ Tuubaa laaj yu kéemaan yoo xam ne baax na baax na jotaay bii ñu xamat Sering bi moom gouverneur di ko laaj waaw sa yoonu murid wi daa am laaj yu ma la ci bëgg a laaj bokk na ca laaj yam ko laaj yi gouverneur général laaj fu yoonu murid juddoo fan la juddoo fan la soso lan mooy fondement ak fondation ci lan la taxaw moom yoonu murid lan moo fan la dëkk lan moo di siisam fan la dëkk nga xam soxla woon foofu nga fekk luy loolu gouverneur général moo ko laaj Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba jël xalima bi la tontu ko ne ko amal mawlidu yoonu murid fi mu juddoo fa kullu man tawallada min bilad min baladi biladi islam mu ne ko foo def réewul islam yi ab jullit judd fa rek fa la yoonu murid juddoo Sëriñ Tuuba loolu la ko tontu daan ne ko itam ne ko fa saaka mawliduha ne ko fondation bi mu tege nag nga xam ne moom nga bëgg xam ba xam dëgër naam dëgërut mooy al imaanu bi tawhidi wal islaamu bi fiqhi wal ihsaan bi tasawuf gëm yàlla gu mat sëkk ci wéetal ko sax dàq ci lislaam ci jëfandiku fiq waaye di rafetal ci tasawuf nee na loolu mooy fondement mooy base yoonu murid ci la sukkandiku yaakaar naa la ku ci sukkandiku doo daanu mu déet waaye nag da ngay laaj fu yoonu murid fu mu dëkk fu yoonu murid ne fu dib séesam nga xam ne boo ko soxloon fa nga koy fekk mu ne ko fukk lu bale di min biladi islam réewum l'islam moo gis naan fa laa ilaha illa muhammadu rasulullah foofay mboolem nag sëriñ si dëppoo woon nañ ci tudd seeni taalibe baatu murit tasawuf maanaam ñi fi jiitu woon ñëpp koo ci liir ay téeréem ay taalibe murit la ko tudd la ko la ko la ko la ko tudde woon waaye lañ jubloon ci murit ñoom mooy koo xam ne sa taalibe di la topp loo ko digal mu def ko loo ko tere mu bàyyi ko ñoom loolu lañ joxoon maanaam yi sëñ Tuubaa nag moom jox jox ko maanaam muridu lay koo xam ne yàlla la bëgg kooku la soxla sëñ Tuubaa kooku la soxla soxla koy topp ni mais soxla yàlla kooku la soxla wo neena isal muridu la yuridu abada khayra rida rahmani xaysu qasada sëñ tubaa nee murid dëgg du soxla wo dara du dum ndërmal yàlla khayr fu ak fu meuna deugmal deugmal ak fu meuna a motax mo wax ne lolou rek moy yoon bi nit meuna jaar muy ak taalibe boo xam ne ci sakko wut yàlla ba am li nga bëgg ba lolou amé mu woote lolou nak suñ borom dimbali ko moom khadimu rasul may ko ca atum assasin ca Mbàkke Kajoor ne ko digal naa la nga woote ndax foofii nga jëm yow moom mii ku jaar ci yow dana agsi ci man amarani rabbi bi an usarriha bi anni malaadun wa ximan wa mafsau Sëñ Tuubaa ko wax nee na yàlla digal ma ne ma man de wéeruwaay laa man de yoon laa man de ku ku aju ci man doo am looy tiit doo am looy jàq wa inani ximan wa mafsau daal di nag saalika fadlullahi yuutihi lasi yasaauhu waxaala li lul xul bii lusi sëñ tubaa ne suñu borom moo ko ne xul waxal yow sëñ tubaa ne bii lusi ñëw leen wéru si ci man loolu ndigal yàlla la ba mu ko defee nag mu daal di andi ay mbégte xam ne ne bépp murit bu aju ci man dana am li mu bëgg tey ak ëllëg dana texe ëllëg dana texe àllaaxira kullu muridin bii yaloosu yasxabu wa innahu min al asaa mubaaxama faasa muridun xaaduhu llahu ila taalluqun biya wa yaxsa bil ila kep ko aji ci man wiru ci man da na am li bëgg tay da na am li bëgg al ala wax na ni si sel yu mu bax mi yan ko yalla fay mos net li ñu togal mu ne len sëñ tuwaa dem na benn jëm jamon mu juk di ñew ci mbolo mi ba jóg leen di ree lu jafé gis ci sëñ bi muy ree bañ digg sëñ tubaa ngi ree nee na bi mu ak sa tok ne xana li ma def da na len jax ñu nak waaw di mbàkk sëñ tali way net neena mu ne len limay may ree suñu borom daf maa xamal léegi may ma ne ma may naa la képp ku aju ci yow tak ajoom di dëgg nga nangul ko ko du ma ko xisaab ci adduna te du ma ko mbugal alaxira nee na bi sëriñ bi waxee loolu daal ni ma waaye la ma gën a la ma gën a bégloo ci sëñ tubaay wax ne la ma gën a bégloo ba ma gën a ree du loolu ndax damaa laajal suñu boroom ne ko waaw taalibi bi moom nu muy xame ne nangul nañ ko ko ajoom wala mën mii sax nu ma koy xame nee na suñ borom yow bokk na ca de tëëli bi boo xam ne xasida mos naa génne ak rangoñam moo tax mu daa war jàng xasida wallaay la asim na suñ borom ne bokk na ca tëëli bi mooy bépp tëëli boo xam ne murid xasida mos naa génne sa rangoñ loolu suñu moo ko moo ko moo ko nett yi yàlla na ko yàlla fay moo xam ne tëëli moom ci yaar yi rek la mooy jëfi ndigal ak watt rek ñaari keno yooyu la ko la ko wutal ñaari keno ñaari wéeruwaay wéeruwaay jëfi ndigal ak wéeruwaay wattu tere ku ci nekk rek li nga bëgg seexu murabbi da nga ko am wa xaysuma nahaaka wa fa xaysuma amarakal murabbi fam tasilil amar tasili rabbi saa yéen seexu murabbi digalee defal lim la wax waaye saa bu la teree bay lim la bàyyi loo loolu sëriñ moo moo moo ko digalee léegi nag bindoon na leetar moom sëñ Tuubaa boo xam ne da ko bind bàyyi fi bi muy bëgg wuy ji boroomam batale ko murit yëpp loolu bokk na ci li sëñ bi indi fii sëñ bi dajaa wax ne yéen murit yëpp ma ngi leen di nuyu murid yu góor yi ak yu jigéen yi nuyoo bu tey nuyoo boo xam ne maa ngi ñaan suñu borom mu musal leen ci képp ku bew tey góor wala képp ku bew tey tey tey jigéen maa ngi leen di ñaanal tam yéen ñi nga xam ne ngeen aju ci man te yàlla tax ngeen am li ngeen bëgg tey ak ëllëg waaye nag maa ngi leen di digal kenn ku ne na fas yéene xam la koy jariñ ci pas-pas xol ci jaamu yàlla ci gëm yàlla ci lislaam ci rafetal kenn ko ne na góorgóorlu ci yeen ba xam li aji ci jëmmi bopam bi ci aji laab lu am solo la laab mun ni ñak ci julit ndax boo laabu doo laal alxuraan boo laabu do julit te yar yooyu rek doyna tektal ci laab kon murid bu seigne touba nee war nga jox ñitte ci attey lab ba xam laab moy lan nga fas yéene ak mom da digle digli ñu taxaw ak mom neena nañ sax ci julli nañ saxo wor ci luñ man sa bu julli jotee nañ julli su koor jotee nañ ko defee ne ko borom diglee ak lepp lo xari war na rek ci digal suñu borom mu daal ca teg nag ne waaye nag loolu bindal naa leen ay téere yoo xam ne bàyyi naa ko fi danaa leen ko fi bàyyil lu ngeen soxloo bu ngeen ko yëre leen ku ci gëlëm rek yaa yaa gëlëmal sa bopp waaye sëñ Tuubaa leeral lépp dootu fi la ñu des mooy sëriñ bi wax na ne ab taalibe nañ góorgóorlu ba ñeenti mbir yii mu ne ci noonu ba ci jëkk nga xam ne benn ab taalibe bu nu ko jee ñàkk ku bëgg ku bëgg àgg benn bi nee na mooy sayxun aarifun mursid yu bàyyi fokk nga am sayxul murabbi bu matu sayxul murabbi nga jox sa bopp sart bu njëkk baa ko kuy dem ci yàlla noonu di sant nañ yàlla ci loolu loolu maa leen ko waxaaleel ñaareel ba mooy xitma da ngay da koy liggéeyal ñetteel ba da ngay am am pas-pas ba foog nga nga dëgër yi loo ci manqué sa dox dana yéex sayxul murabbi bu wóor ngay da nga koy liggéeyal def si yitte da dëgër te mën a muñ nee na yent yi rek buñ ko buñ buñ saxee dana am solo liñ bëgg dañ ko am seexul murabbi nag nee na niñ mooy jaayante da ngay jaayanteeg moom jox ko lépp bañ a desal dara ci na nga xam ne jaayante googu ci sa xol lay doon nga wax ko ci saw làmmiñ def ko ci sa xol noonu nee na sëñ noonu lañuy jaayantee da koy wax ci saw fas ko ci sab xol sa cër yi wane ko mooy tax ñu nangul la sa jaayante bu delloo ci mille trois mille trois cent un boobu moo ko nekk ci Mbàkke Kajoor nee na mën nañu andi rek benn misaal donc ci jébbalu maam Cheikh Ibra Fall ci Sëñ Tuuba Cheikh Ibra bi mu ñëwee di jox Sëñ Tuuba boppam dafa ñëw ne ko Cheikh Ibra da ko baat bu gàtt la ko da ko jox bopp ne ko awa yow sang bu tedd bi maa ngi ñëw tey di jaayanteeg yow jox naa la saa bopp jox naa la saa lépp awuma nag benn bëgg-bëgg bu dul jëm yàlla ji Cheikh Ibra loolu rek loo xam mu jaax bi mu ko waxee. wax nañ sëñ daf ko def sax doxul nuyu ko ko ne ko Ibrahima mu ne ko Mbàkke mu ne ko loolee nga wax day kii nga koy waxal ba mu bëggee loolee nga bëgg ca kam ko bëggoon muy Rasulullaahi sallallahu alayhi wasallam sallam bi ma ne cëpp fii ci kaw suuf su ma fi fekkoon asamaan si dong mu wóor ma ne mos naa mu wóor ma ne yonent sa sama mos naa xool asamaan si man Ahmadu sama pas-pas may naa li ma bëgg ci moom danaa ko am kon nag yow war ngaa sant ba nga fekkee ko la ko mën a sëñ Tuubaa ko wax loolu nee asman asamaan si rek su ma ko fekkoon mu wóor ma ne yonent bi daana ko xool rek man doy na ma sëñ bi war nañoo góorgóorlu bu baax sëñ Tuubaa foofu la nekkoon ci ak taalibeem loolu loolu yi moom moom moom la moom la tontu Cheikh Ibra Fall kon nag sëñ bi neen la ca des mooy kon nañ sax nag te daal di tàmbali liggéey bi te fas ci nekk liggéey nag xëj ma nag bu sëñ Tuubaa fonk bokkut ak amal bokkut ak kas ci arab amal mën ngaa dem ca tool ya mën dem ca marché ba di di di liggéey aka sakk loo loo jariñoo yaag sa njaboot wana noo dimbal waaye xidma nag ñaare dëgg dëgg xidma baatu xóot bi mooy nit ki lu mu jóg di ko def te wuru ci dara loolu jëm yàlla nga xam ne maanaam amaana njariñ amaana njariñ sayr lu jël si ci moom du ko ci gis loolu mooy baatu xidma noonu la Sëñ Tuubaa doon liggéey la nag yonent bi sallallahu wa sallam arjo bi xidmatihi kaw nii huna wa man kurima sahaaba yaa ndoona moom di jaman ñu di leen rey ñuy daan ni la bëgg mel ci ñooñu la bëgg bok waye dem na borom bu leen sax dem na ba xam ne romb naa leen zinatu sahiri wa batini maha kawni qadiman lahu muttabi'a axdimuhu ila dukhulil janna dari xaraari wal munaw wal minna sëñ Tuubaa ne so bëgg dal moy sàkk sa liggéey yonte bi saa salaam te nag ñaan na sun borom li ma koy liggéeyal bu mu dak mukk ba ba may teg saak lax saa ñu ne aljana fofé fa lañu wara nek a sëñ bi daal lool mo di talibi kon nak ak taalibe solo si mënee su ko mënee su ko lim bari na lool ndax sëñ Tuubaa neen day ci liggéeyal yonent bi ci la ma sunu borom defale lu ma bëgg mu yombal ci la ma sunu borom defale lu ma ko ñaan moom mooy ma ci la ma sunu borom defale ma am salaaxul xal bi xol bu yéwén ci la ma sunu borom defale te ma am defarug tey ak defarug ëllëg sëñ Tuubaa ne loolu lépp ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko amee waaye nag sëñ bi nag nee nañ kon war nañu fàttaliku tuuti ci la ci ñi sëñ Tuubaa doon liggéeyal yonent bi ci nan bokk na ca dan ko liggel ci alquran serigne bi bëgg nañu taxaw ci lolu te dañ ci aksi ñen serigne tuba da ko liggel ci alquran mokal ko mom diko tari sa su diko mokal lu diko bind diko ko bindulu wuti dari kamil fu ne jaar na ko alxuraan dem na ba wër am ñaar fukki fan ak ak ak juróom-ñaar mu génne kay wa sey bët min ci dagana ak ñam ko bolel ne len kay gii tay la ñaata fan ci wër ñu ne ko tay la ñaar fukki juroom ñaar mu ni nii baarame ñaar fukki juroom ñeent ñaar fukki juroom ñeent bëgg naa buñ nee taafeer ngeen ne ma kaamil baa ngi nii xam nga lu ne lu ne wan na ko gars yi ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne ñaar fukk juróom-ñett ñaar fukk bëgg naa buñ nee taafeer ngeen a ma kaamil baa ngi nii bañ demee ñu daal koy séddoo bind ko ba ñëwee la ci gën a yee mooy wenn xët sutaati wut ak te ñoom ba ñuy bind gisantiwuñ kon daam lu mu def ci ñoom te am lu mu leen doon won da nga naa ba mu ko jëlee mu sëpp ko yemale ko daal ni alhamdulilahi sant leen ma yàlla waay moom sëñ Tuubaa sant daal di sant li leen ma yàlla ndax lu bëgg ci moom rek am bokk na ci dem tagg yonent bi sallallahu ndax ne li bëgg lépp ci yonent tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko amee muqaddamatul am daax muqaddamatul xidma ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu yëpp boole bind boole jàng boole liggéey yooyu yëpp ci yooyu la nekkoon kon sëriñ bi naan nañ nañ bàyyi xel liggéey te xam ne mooy li nga xam ne am murid mënu koo ñàkk sëñ Tuubaa nag nee na sëñ bi naan sëñ Tuubaa bi mu liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam jumtukaay yi mu jëloon doon ko liggéey moo ma jumtukaay xam nga koy liggéey da ngay soxla jumtukaay ay outil sëñ Tuubaa oto yi mu jëloon jox yonent bi saa salaam ba ci jiitu mooy ak ruum ruu gi la joxe ab taalibe bi day joxe ak ruuxam naa ne bu ko sëñ bi soxla woon rek yet benn ba topp bu jox ko yaramam wii jox ko xolam jox ko liggéeyam jox ko alalam jox ko xam-xamam jox ko njabootam noonu la ko sëñ Tuubaa bind de waaye la ci gën a yéeme te kenn mësu koo gis ci kuy jaayante noonu mu ne ko sax joxaale naa la saa ñaari wajur sëñ Mor Anta Sali ak Soxna Jaara mbind maa ngi ma tiim juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alal yow sunu borom yow rasul lay bis naka tey jumtukaay bu ma am ngir ban la ci liggéeyal jox naa la ko jox naa la tey sama ruugi sama yaram wi wa waladi ak doom ju ma am wa walidayya ak sama ñaari waajur sax joxaay naa la ko boole bokk na ci liggéey kooku kii moo mën a jaayante kii moo mën a liggéey moom sëñ Touba nafsi wa diini suma ahli wal walat wa maskani samay doom sama jëmm sama diine l'islam ji touba gi nu top lepp rek jox naa la ci gattal sax wa haaka sa dunya ya ma ukhra ya naa àddina ak alaaxira jox la bëggatu mu ci adna dara beugumu ci alaaxira fi ni seigne sëñ Tuubaa bi jaayante boromam du lu mu ragal ci alaaxira wala lu mu bëgg ci àddina nee na ko bëgguma àddina bëgguma alaaxira yow la beug jox naa la ñaar yeb jeelal sa aduna jeelal sa alaaxira daani ila ilaamati hubu sadi yow dong la beug man kon loy tam loy tam lu am solo la kon seigne bi nee liggey ngok nañ ci dal li sóobu neen nag bokk na ca yoy yi lu yomb xane ci rawati na mbolo rawati na mbolo mu melni mbolo mi nak nag ci ndax nee kat dimbali daaree alxuraan liggéeyal sëñ seigne touba seigne bi ne ko nañ taxaw ci loolu dimbali fu ñu jàngalee alxuraan dimbali dara daara liggéeyal seigne touba la dimbali daaree xam-xam yi wala nga samp ko liggéeyal seigne touba la gasu teen wala nga def sa dara ci lu jëm ci am ndox loolu liggéeyal sëñ Tuubaa la jëmbat garab lu jëm si liggéeyal sëñ Tuubaa la jëmbat garab sax moom day fal de wax na fii ne téere bi bu ne bu fexe woon ba garab rek kenn xamul tawaay ba jëm tool loolu nan ko yóbbaale téere bi bu nekk ci nun ñi loolu moom loolu moom ak bëggam mi ngi ni toog bóor ak mëgg ak bëggam kenn ku ne ci nun tey bu jógee fii day fexe jëmbatu ak garab na jëmbatu garab def ko addi sëñ Tuubaa léegi yoon mu ñu ci léegi Sénégal Sénégal ak fu fenn mu tàggu ci barke moom mi loolu tam ci ndigal yi la bokk ay fajukaay ci ci ci la bokk ak lépp lu jariñ bi bindeef nee na te war nañu fexe ba wut sax ay barab ay centre yoo xam ne la ñuy jariñ mooy ay centre social yooyu sax jëmmi nit ki bu amee aajo luñ ko war a xalaatal day daal di xam ne bu jawalee fee am ci xalaat bu soxla woon ndimbal bu fa jawalee mës na ko faa dimbali yooyu yëpp nee na mbooloo loolu lépp lëggeel sëñ Tuubaa la ci lëggeel sëñ Tuubaa la bokk ndax jëmmi sëriñ bi moom raw nanu waaye nag liggéey bi mi ngi fi ba léegi ci yooyu ak nag yeneen yu bëree bëri bëri yoo xam ne tudd surtout nag nee na dimbali ko borom aajo joo xam ne dafa am aajo tam wóor na mën laa dimbali te nga xam sëñ bi nee na xaar ba mu di la képp ku ci gis ku aajo dimbal sëriñ bi ne bul xaar ba muy ci yow loo mën ci moom na ko dal di def nee loolu lëggeel sëñ Tuubaa ku ñuy wax jigéen di dëkk gànnaar la ku xam waaye moom dëgg-dëgg sëñ ak solo la ci sëñ lay jël def ko misaalum sëñ Tuuba si moo wax lii gannaar la dëkk ci lii sëñ mu Seex Musaa doon wax ci liggéey yi nee na sëñ Mouhamed Mbacke kii moo xam nu ñu liggéey la sëñ Tuuba ndax nee na nun day waa gànnaar maanaam wóor nanu te nangu nan te xam nan ne am na yaqin ci te teg nañ ci suñu loxo ci ne sëriñ Mouhamad Mbacké jëmba ngi nii joo xam ne ku am looy tiit am looy ragal boo àggee ci moom dootoo tiit dootoo ragal te def na daal ne te def nanu ko nee na jëmba ngi joo xam ne képp koo xam ne dañ laa doyadal ba xeeb la soo ñun dugg soo duggee ci loxoom ñëpp seen la ñëpp naw la nee na loolu liggéeyal sëñ Touba la nee na jëmba ngi joo xam ne képp ko di jirim ba amutoo ndey amutoo bàyyi boo demee mu gën ci yow sa ndey gën ci yow sa bàyyi nee na kii moo woon la gël sëñ neena nee na jëmm ngi yoo xam ne boo demee ba amoo dara sa ji dara ni wucc nee na wuti ko boo fa jógee da bokk ci fo ca ci njëgër a woom le nee na jëmm yoo xam ne loo woom le woom le loo bari le bari le boo ne cëpp ci moom mu dolli la sab jal da nga yaakaar ne amoo woon dara nee na kii mën liggéey sëñ Tuubaa waaye li ci yémet nee na jëmm ngi joo xam ne képp koo xam ne tey génnee woon nañ ko ba kenn soxlaatu ko kenn bëggatu koo teg bët daa la fat bëgg ku ko séenati bëgg fu mu fattu koo koy fattu fa loolu ab naan ab daara ko wax nee na nee na sëñ Mbàkke mi moo dëgg sëñ Tuubaa ci liggéeyal te nun ñëpp xam nañ li wax dëgg la ak loo xam ne noo gën a xam loolu nag loolu lu mat lu mat a xel la mu tëj nag waxtaan wi ci ci discours boobu mooy pas-pas bi mu waxoon mooy yitte jooju ma waxoon nañ ci taxaw tem ci pas bu wóor bu xóot boo xam ne saxaaba yi ca lañ ca lañ ca lañ taxawoon sëñ Touba ca la taxawoon fii ne bu ñu doon waxtaan yittey sëñ Touba akub ak akub muñam mën nañ fee fanaan waaye boo liiree téere bi Mouhamad Abdullahi Ash-Shanqiti téere bi mu tuddee an-Nafahatul Miskiya mu fay nettali sëñ Touba dëgër bi mu dëgër ci ni doon liggéey Rasulullaay ak muñ bi mu a muñ day nettali ci téere bi ne am na bés sëñ Touba woo ma nee na am na bés sëñ Touba woo ko ba mu ñëw mu ne ko mu ne ko Bak mu ne ko Mouhamad nee na ma ne ko labbe mu nee mu ubbi ab bool. amuñ ca wu tuuti nee na sëñ bi somp ca barke la mos ne daal ma koy daal ma koy jañ mu ngi nettali rek maanaam dëgërub sëñ bi nee na bi ma nee ba tax di xelu nee na sëriñ bi ne ma Muhammad tey jii de lay daal di ko xaala li sittu layaalin maa waqtu shay'an qabla hada juróom-ñaari bis a ngi nii ci bisu bii sama loxo bi duggul sama gémmiñ bi sëñ tuwaa ko xool lépp liggéey rasulaay jaral yonte jaral ko loolu mu wax li naar bi mu ne ko tey li juróom-ñaari fan yoo xam ne sama gémmiñ gi dara dugg ci lu dul naar boobu moo ko ne moo ko fekk sëñ tuwaa ko kooku kooku mooy ki dëgër kooku mooy ki bëgg la yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon sëriñ bi nee nañ nañ nekk foofu bu baax leneen la ci des nag mooy kon nee na nan góorgóorloo bu baax jàppante bu baax xam ne lëggeel sëriñ Tuubaa lépp lu way bëgg lëggeel sëriñ Tuubaa ma nga ci loola mi ngi ñaan suñu borom mu defal ma ko leneen la ci des nag di tombu ñaareel bi moom tomb la boo xam ne ne ko bu njëkk bi yitteele noonu la ko bi yitteele te kuy dem bale sëriñ bi dafa wax ne mbooloo mi na sant ñëpp ku ci jotaay sëriñ bi na leen wóor ne xolum sedd na guy na leen wóor ne liggéey bii mu sant ak lii mu ne tan ànd ci moom fu fooy mën a nekk loo ci def nga xam na képp koo xam ne dangaa jóg di am looy sakk boo sañoon am ñu la ci jàppale rawatina ku wut yàlla suñu borom ku jóg ni si wut suñu borom moom nag nee na daa jóg ngir liggéeyal suñu borom yitte woon a ñu àndal waaye nee na alhamdulilah rabbil alamin suñu borom jono ko ab ànd nee na mooy nun ñii moo ko wax de nee na ginnaaw bu nu ko yàlla joxee ñu doy àndam nee na mi ngi leen di xamal ne képp koo xam ne ndéega ko yow Cheikh Moustapha doyloo naa la jox naa la sama bopp yaa bokk sama sama diggal sëñ Tuubaa nii la ko waxee nee na képp koo xam ne nee nga man mii maa dox sa digganteeg sëñ Tuubaa digal naa la liggéey bii di ahibaaul xadim li nusu diwul xadim na nga ci na nga ci na nga ci sa bopp na nga ci nekk guddeeg bëccëg looy la nee na liggéey bii lim sumb lim naan lim dëgmal ndab la ngi ni moy liggey bi ahibaaru xadim tan li wax na wax bi leer na de am na ñu ko fekk de neena kepp ko koo jox nga ko sa bop ne ko ya dox sama digganteeg sëñ Tuubaa diggal la la ne ahibaaru xadim loj na ci def lo man def ci loo mënu mi ngi nii toog la seigne bi digle neena kon yeen ñu ngi ci section yi ñew fi ak yeen ñi nek touba ak ko wër ak fu waay bàyyi koo bi neena bu ngeen agaté bëgg na kenn ko ni fi bo fi joggé na nga takkat la gu ku fas yéene liggéeyam bi ñu ànd ko moom bëgg fa mu ko bëgg ndax nee na fi mu sori na yoon wi yaatu na te moom fi mu ñemee na fi te noonu la fas yéene ànd la neen nag waxut kenn nun ñi ko jox suñu bopp kii suñu tubaab lay waxal kon noonu mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp ñi ñaan suñu borom yàlla na ko fi yàggal suñu karam ba li bëgg liggéey suñu tubaab lépp mu liggéey wa salaamu aleykum wa rahmatullahi fu waaye toll mu tàllal loxo yi duna jaay ngir bëgg am si yërmande amiin yow la nu def sunu baay di sunu maam di sunu yaay di sunu waay di sunu jaay di sunu gën ji yërmande ba noonu gaa yi fi newoon topp la yaa gën ña dikkoon yow mi ñu may kun fa yokkoon gaawe nu ngir si yërmande fab nañu saahir sa bu wér booli ca baatin ba bu wér boole ca ruuya ak i jër jëbbal la ngir si yërmande nu sun tilimi xool te sellalal na sunu xel ba dun xalam lu koy naxal ngir yàlla ak si yërmande te may nu ay leer ak mboot te yor nu noog sunu njaboot dinu xamal xam-xam yu xool yu bari ngir si yërmande te nag nu def ngeen ji murit fegal nu it xam marit te nga wutal no ay murit yu bari ngir si yërmande nga xale ngir ma ba mu weex du di caaw te bu nu xeex bun jàdd bun jeex ba gisane gi yërmande te bu ñu geesu bu nu seet adina mi tax nit sud, di xeyji gontu bani sud suut ci ngeen ji yërmande te yornu yornu bu nu rew bun fo di dox di wëri rew bun werante bu nu so tagat nu ngir se yërmande nga fegal nu deegu gaaw ak ki gem ak ñaaw ten sax ci loo wax nu ne waaw waaw ndax te am si yërmande te may nu lépp lu nuy mebet ci yow te may nu lu nuy mébét ci yow ci hadiyaa ki jëf yu yiw te fàtte loonu ku du yow ngir yàlla ci yërmande assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki taalibi fi teew yépp di nuyu ci turu Cheikh ak ci ndigalam muy jiital ci nuyo bi ci fi nekkal sëñ Touba di Cheikh Seydil Mokhtar sëriñ bi ne mi ngi koy ñaanal te ñaan na ko ñëpp ñaanal ab liggéeyam sotti ci leetan ànd ko ak moom mi ngi nuyoo ko siyaar itam Cheikh Ahmadul Mokhtar bi fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha mu ñaan mu yàgg fi lool ak wajur bi tedd yi tekk ci bopp di Cheikh Abdul fatah mi ngi ñaanal njabootu Sëñ Tuubaa gépp nee na sama borom dimbali leen ba ko ci ne sa yene ci li nga bëgg a liggéeyal sa mam seigne touba Cheikh Moussa neen mi ngi ñaanal ñëpp lolé mi ngi nuyu nag mboolem ñi ci tay bi tay ci jital soxna mam bu sa Mbàkke mi ak seigne Abdoulaye Fall ñom ñi nga xamni ñoo jité liggéey bi di nuyu tam bu baax mbolam ñi ko sekkal yëpp te señ Diop tuddu len legi muy dongay la xay señ barlo ñom muy dayre ansar bi ni señ bay Gay muy señ Cheikh señ mbacke fatil la mi jité Cheikh sepp ak Cheikh si fi teew sépp sëriñ bi gis na len ak nak mbolam dayre ci aj rek bayu ben señ bi neena mi ngi nuyu kilifa yi daayira yëpp fu fi bàyyi ko ci biir Touba ak ci bitti tuubaa wala ko amoon yéene ñëw ñëpp rek nee na na la wóor ne ak cantam ak seen ci yow. waxtaan wi nag nee na ndax waxtu waxat wi moo ko joxe ni ndigal bi du ko nii dafa wax ne tey dafa bëgg nu waxtaanee tomb bu am solo ñaar la benn tomb bi mooy jiitu loo xam ne sunu njëriñ ak nag suñu njëriñ àllaaxira ci ba ñaareel bi it di ay soññee ak cant yu jóge ci moom yoo xam ne ni ko sëñ seex bi waxee léegi ñereñ leen lu ñu tàmbalee teg suñu loxo te liñ ma lañu ëpp yaakaar ci moom li bëgg na waxtaane ko nag nee na mooy day loo xam ne gis na ne kenn ci ñun koo ñàkk ku ne boo xamoon fu mu am da nga wuti fa boo xam lu muy jar da nga wuti njëgam te loolu neen mooy ak bi ak lëggéeyal sëñ Tuuba yaar yooyu daal la bëgg nu fàttaliku wat ko tey baax a baax ndax beesal fa sakkiri in na nafaati zikre ak murid nan la gisee ak al muridiya ak murid nan la gisee ak talib ak talib moy lan waye ak talib bo xamé moy lan noy la gëlé seigne touba ndax nit ki lu muy def daf ko wara xam muy xam ñu bari jaar nañ fi ba jall te mos na leen li leen fi andi won, bayi leen fi te moy jamu yalla te lolé kat néna ci la jaamu yàlla googu suñu borom diglee yónni ko sallallahu alayhi wasallam mu ñëw fi diir ba jóge fi saxaaba yi di ko awantoo ak gaa yu baax moom dem ba sori dafa mujj mel ne la yéefar yi daan wax ne yont naan wa fi azanina waqrun wa min baynina wa baynaka xijaab loolu daa daal ñu bari ba sunna ak l'islam mel luy bëgg a ràpp lu raaf mel sax lu fi nekkatu sëñ Touba ne sëñ Touba ne sa feet ak suñu borom andi ko bi gis loolu yi moom Xaadimu Rasuul daal di taxaw temm nag ci lislaam jooju yi nga xam ne moo gën suñu borom ba mu wax ne inna diina inda llaahi lislaam moom dem bay rab sëriñ bi ne Xaadimu Rasuul moom dafa dellusi nag fas yéene indi lislaam joo xam ne dafay sax ba dakk te duutu rab duutu raaf duutu lënt tanabbahu يا أيها الشبان خادكم إلى الهدى المنام في أن سنة النبي في أن سنة نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة كل حين كادت تراث رسم دار قد عفا في ذا الزمان لمدين قد عفا سلتوا أكو بني نانا خم بما يو كت فكنا ديري جي مل كرغو جنت كرغو خيدا جنت دار نيوتو لغي نك لما بغ موي فسيري تاخو تمونك نك كرغي te yeesalaat ko diini siwa islaamihi laa yahmad indal ilaahi waaye nag bu bii ñu jët ma ñëw na ngir yeesalaat sëñ bi ne moo tax ci loolu xaadimu rasul bi mu ñëwee fekk na ñu ko fi jiitu woon kenn kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bay na ci sas yaatu ci ñu ko fi waaye nag ku nekk nam daan bayee ak fam daan bayee ak yoon moom daan jaar nee na bi sëñ tubaa xaadimu rasul ñëwee nag ndax ñooñee kenn ku ñen fa nga daan jaar dangaa woo sa mbooloo tudde tudde sam am sam ngir nga wut noo ko tudde am na ci ñooñ sax seen jëmmi bopp lañu ko tudde wala seenu askan wala seenu dëkk sëñ Tuubaa xam ne loolu bu dee dëkk mën naa gert bu dee tur turoo na faa jóge mën na koo fàtt mu seet li dul gert du fi jóge mu tuddi ko moom yoon wi mu jaar mooy man araada waccal tuddi ko yoon bu soxla yàlla mu koo xam ne da ngaa soxla wa jëm yàlla moom moom tuddee aw doxinam doy loo ko sëkk nag loolu nag bi mu amee Cheikh Moustapha al Karim mu baax na ma maamam ju tedd ja ko ci sonnoon na lool ci ci xamal ni ñi taalibe yi ak taalibe mooy lan ndax Cheikh Moustapha day mbind maa ngi nee ak taalibe ak murit du wax kese inna al irada laysat bi mujarradil kalaami lay wax nee na ak taalibe du wax kese de ñëw ne ni Cheikh Moustapha jox naa saa bopp dem sama yoon nee déedéet dafa am lu muy àndal tadullu ala sixatiha waxe mu tax sa taalibe wér ala wa hiya sidq fi lmahabati wal xibatu bil xabri nee na da ngay bëgg sëñ bi bëggeel boo xam ne wër na leen sa xol bi bu ñu ko seetee moom dong lañ ci fekk benn ngoog boo ca noppee nag dafa seen taxaw temm na ci liggéeyal ko ci fi la yàlla tolloo ne Cheikh Moussa noonu la définir ak murit noonu la définir yoonu murit suñu borom wax ne tib saa ne ko wasbir nafsaka maa allasina yad'una rabbahum bil qadaawati wal ashi yuriduna wajhahu al iradatu kon ñëw na foofu ci alxuraan yuriduna wajhahu moo tax sëñ Tuubaa andi yoon wi tudde ko muridullahi ñi nga xam ne yàlla rek lañ soxla woo sëñ bi Cheikh Moustapha wax na ne nañ daan yare seeni taalu bi ak di leen yóbboo ci yàlla daa wóote am na ñoo xam ne dañ daan dañ daan teg seeni taalu bi coono yu metti lu demee nekk di leen di leen digal koor boo xam dañ koy saxo wala saxoo fanaanee xool ba bët set wala wéet ba ci jaxasoo nit ñi di leen lëgil lëgil yu wet am na ci ñoo xam ne daanañu wayfal seen diggante seen seen seen seen njaboot ci julli juróom ak lenn ci naafila ak lenn ci ay wér ak yu daw am na ci ñoo xam ne nag ci digg bi lañ nekk dañoo metti luñ seen seen ob liggéey waaye wayfal luñ sëñ Tuubaa nag bi mu ñëwee lépp la jël boole ci boppam lépp la moo tax ñi def ko daan jox seen bopp am na ñoo xam ne danañ leen teg loo xam ne dañuy dema dema dem ba yaakaar dañoo far génn àdduna am ci ñoo xam ne lu néew la leen def loo defar seen biir am ci ñoo xam ne buñ accès bu leen xoolee seen biir def bu yeewi leen ñu dem sëñ Tuubaa loolu la ko suñu borom defal illa yaqaada allahu ma lam yakun wala yakunu abadan li mumkin mu rabbuna yi jëkk yi la mu leen may li mu ko may moom sëñ Tuubaa daa daa ëpp loolee léegi nag mu daal di nag indi yoonu murit wii nga xam ne lépp lu lislaam soxla woo rek mi ngi ci mi ngi lépp lu lislaam soxla woo rek mi ngi ci biir yoon wi mu tudde ko al muridiya te nee nañ al muridiya tax nii al abda saaya li nay ridallahi murid moom mooy jëmm ji dox ji wut ngërëmal yàlla koo gis ku nekk rek bu nee rek neen eh kuy wut yàlla nga ne fii xarakaat yi wa sakanaat yi même booy dox booy lekk booy naan booy xoole booy geesu lépp looy def rek da ngay jàpp li war nga kooku moo di murid koo xam ne dara du neen sëñ sëriñ bi nee na loolu moo di murid ku fas yéene sa dara du neen booy dox booy wax booy toog booy noyyi lépp looy def rek nga di ci wut ngërëmal yàlla loolu moo tax sëriñ bi tudde ko noonu nii nee na gouverneur général mos naa laaj sëriñ Tuubaa laaju kéemaan yoo xam ne baax na baax na jotaay bii ñu xamat sëriñ bi moom gouverneur général di ko laaj waaw sa yoonu murid wii daa am laaj yu ma la ci bëgg laaj bokk na ca laaj yam ko laaj yu ko gouverneur général laaj fu yoonu murid juddoo fan la juddoo fan la soso lan mooy fondement ak fondation ci lan la taxaw moom yoonu murit lan moo fan la dëkk lan moo di séesam fan la dëkk nga ko soxla woon foofu nga koy fekk yoonu murit luy jubluwaayam loolu gouverneur général moo ko laaj Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa jël kalima tontu ko ne ko amal mawlidu yoonu murit fi mu juddoo fa kullu man tawallada min bila min baladi baladi islam mu ne ko foo def réewul islam yi ab jullit juddu fa rek fa la yoonu murit juddoo Sëñ dal ni ko itam ne ko fa saaka ha ne ko fondation bi tege nak nga xam mo nga bëgg xam xam dëgër naam dëgërut moy al iman bi tawhid wal islam bi fiqh wal ihsan bi tasawuf gëm yalla gu ma sekk ci wéetal ko sax dak ci islam ci jëfandiku fiqh way di rafetal ci tasawuf neena lool moy fondement moy base yoonu murid ci la sukkandu yaakaar naa la ku ci sukkandiku doo daanu mo dekk way ne da ngay laaj fu yoonu murid fu mu dëkk fu yoonu murid ne fu dib siesam nga xam ne boko soxla fu fa koy fekk mu ne ko fa kullu baladin min biladi islam réewum l'islam moo gis su naan fa laa ilaha illa muhammadu rasulullah foofay dëkk bi yoonu murid loolu la suñu tubaab tontu gouverneur général mboolem nag sëriñ si dëppoo woon nañ ci tudd seen i taalibi baatu murid tasawuf maanaam ñi fi jiitu woon ñëpp koo ci liir ay téeréem ay taalibe murid la ko tudd la ko la ko la ko la woon waaye lañ jublu woon ci murid ñoom mooy koo xam ne sa taalibe di la topp loo ko mu def ko loo ko tere mu bàyyi ko seigne touba nak mom jox jox ko manam muridu lay ko xam yàlla la bëgg kooku la soxla seigne touba kooku la soxlo soxlo soxlawul koy top ni mais ku soxla yàlla kooku la soxla wo neena na isal muridu la yuridu abada khayra rida rahmani xaysu qasada seigne touba ne na murid deug soxlo wo dara du du ngërëmal yàlla khayr fu ak fu meuna a deugmal ak fu meuna a motax mo wax ne lolou rek moy yoon wi nit meuna jaar muy ak taalibe goo xam ne ci sàkkoo wut yàlla ba am li nga bëgg ba loolu amee mu woote lool nag suñ borom dimbali ko moom xaadimu rasul may ko ci atum asasin ca Mbàkke Kajoor ne ko digal naa la nga woote ndax foofii nga jëm yow ma mii ku jaar ci yow dana agsi ci man amarani rabbi bi an usarriha bi anni malaadun wa himan wa mafsau Sëñ Tuubaa ko wax nee na yàlla digal ma ne ma man de wéeruwaay laa man de yoon la man de ku ku aju ci man doo am looy tiit doo am looy jàq wa inna nii xemen wa mafsahu daal ne nag saalika fadlullahi yuutihi lasi yasaauhu waxaala li lul xul bii lusi sëñ tubaa ne suñu borom moo ko ne xul waxal yow sëñ tubaa ne bii si ñëw leen wéeru si ci man loolu la yàlla ba mu ko defee nag mu daal di andi ay mbégte xam ne ne bépp murit bu aju ci man daanaam li mu bëgg tey ak ëllëg dana tax donc dana tax àllaaxira kullu muridin bii yaloosu yasxabu wa innahu min al asaamu baaxama faasa muridun xaadahu llaahu ila taalluqun biya wa yaxsa bil ila képp ko aju ci man wéeru ci man dana am li bëgg tey dana am li bëgg al àllaaxira wax na ne si Saliou Mbacke mu baax mi yan ko yàlla fay mos naa nett li ñu toogal mu ne leen sëñ Tuubaa de am na benn jëmmi jamono mu jóg di ñëw ci mbooloo mi ba jóg leen di ree lu lu jafee gis ci sëñ bi muy ree bañ dégg sëñ Tuubaa ngi ree nee bi mu agsi fa toog ne xanaa li ma def dana leen jaaxal ñu ne ko waaw di mbag sëñ Saaliw woy nepp nee na mu ne leen li may ree de suñu borom daf maa xamal léegi may ma ne ma may naa la képp ko aju ci yow tak ajoom bi dëgg nga nangul ko ko du ma ko xisaab ci adduna te duma ma ko mbugal alaxira nee na bi sëriñ bi waxee loolu dal ni ma tëkkat ndax ni waaye la ma gën a la ma gën a bégloo ci sëñ tubaay wax ne la ma gën a bégloo ba ma gën a reer du loolu ndax damaa laajal suñu borom ne ko waaw taalibi bi moom nu muy xame ne nangul nañ ko ko ajoom wala mën mi sax nu ma koy xame nee na suñu borom ne bokk na ca de taalibi boo xam ne xasida mos naa génne ak rangoñam moo tax murid daa war jàng xasida wallahi asim nee na suñu borom ne ko bokk na ca taalibi boo xam ne nangu nañ ak ajoom mooy bëgg taalibi boo xam ne murid xasida mos naa génne sa rangoñam loolu suñ sal yi moo ko moo ko moo ko nekk yi yàlla na ko yàlla fay moo wax na ne moom ci yaar yi rek la mooy jëfi ndigal ak wattu rek suñ tubaa ñaari keno yooyu la ko la ko wutal ñaari keno ñaari wéeruwaay wéeruwaay jëfi ndigal ak wéeruwaay wattu tere ku ci nekk rek li nga bëgg seexum roy bi da nga ko am wa xaysuma na wa fa xaysuma amarakal mu rabbi fam tasilil amar tasili rabbi saa yàlla seexum mu rabbi digalee defal lim la wax waaye saa la tere bay lim la bàyyi la loolu sëriñ moo moo moo ko léegi nag bindoon na leetar moom sëñ Tuubaa boo xam ne da ko bind bàyyi fi bi muy bëgg wuy ji borom batale ko murit yëpp loolu bokk na ci li sëñ fii sëñ bi dajaa wax ne yéen murit yëpp maa ngi leen di nuyu murit yu góor yi ak yu jigéen yi nuyoo bu tey nuyoo boo xam ne maa ngi ñaan suñu borom mu musal leen ci képp ku bew tey góor wala képp ku bew tey tey tey jigéen maa ngi leen di ñaanal tam yéen ñi nga xam ne ngeen aju ci te yàlla tax ngeen am li ngeen bëgg tey ëllëg waaye nag maa ngi leen di digal kenn ku ne na fas yéene xam la koy jariñ ci pas-pas xol ci jaamu yàlla ci gëm yàlla ci lislaam ci rafet na kenn ku ne na góorgóorlu ci yéen ba xam li aju ci jëmmi boppam ji ci aju laab lu am solo la laab moom du ñàkk ci jullit ndax boo laabu doo laal alxuraan boo laabu doo julli te yaar yooyu rek doy na tegtal ci laab kon murit bu ne sëñ Tuubaa nee war ngaa jox ñitti attey laab ba xam laab mooy lan nga fas yi taxaw ak moom danaa digle it ñu taxaw ak moom nee na nañ sax ci julli nañ saxoo woor ci luñ man saa bu julli jotee nañ julli su koor jotee nañ ko defee ne ko suñu borom diglee ak lépp loo xam ne war na rek ci digal suñu borom mu daal ne waaye nag loolu bindal naa leen ay téere yoo xam ne bàyyi naa ko fi danaa leen ko fi bàyyil lu ngeen soxloo bu ngeen ko yëreen ko fekk ca kon ñun ku ci gëlëm rek yaa yaa gëlëmal sa bopp waaye sëñ Tuubaa leeral lépp dootu fi la ñu des nag mooy sëriñ bi nañ gorgolu ba ñent mbir yi mu ne ci non ba ci jëkk nga xade ben ab talib bu ñu ko jee ñak ku bëgg ku bëgg àgg bi neena na shaykhun sayxun aarifun mursid yu bàyyi fokk nga shaykhul murabbi bu matu shaykhul murabbi nga jox ko sa bop sat bu jëkk ba ko ku dem ci yalla non di sant nañ yalla ci lool lool ma leen ko waxale ñaarel ba moy khitma da ngay da ngay liggeyel ñettel ba da ngay am himma manam yitte am pass pass am dogu ñentel ba fokk nga muñ fokk nga dëgër yi lo ci manki sa dox dana yeex shaykhul murabbi bu wor ngay am dang koy liggéeyal dang ci def ci yitte da ngay te manam neena yent yi rek buñ buñ buñ saxé dana am solo li bëgg dañ ko am shaykhul murabbi nak neena niñ koy wuté moy jaayante da ngay ak mom jox sa lepp baña dessal dara ci bop na nga xamne jaayante googu ci sa xol lay doon nga wax ko ci saw làmmiñ def ko ci sa xol say cër wane ko noonu nee na sëñ bi nee noonu la ñuy jaayantee koy wax ci saw làmmiñ fas ko ci sab xol sa cër yi wane ko mooy tax ñu nangu la sa jaayante bu delloo ci mille trois mille trois cent un boobu moo ko nekk nee na mën nañu andi rek benn misaal dong ci jébbalu maam Cheikh Ibra Fall ci sëñ Cheikh Ibra bi mu ñëwee di jox sëñ Tuuba boppam dafa ñëw ne ko Cheikh Ibra da ko baat bu gàtt la ko da ko jox bopp ne ko yow sang bu tedd bi maa ngi ñëw tey di jaayanteeg yow jox naa la saa bopp jox naa la saa lépp awuma nag benn bëgg-bëgg bu dul jëm yàlla ji Cheikh Ibrahima loolu rek loo xam mu yàq bi mu ko waxee wax nañ sëñ Tuubaa daf ko ne sax loolu nuyu ko téye ko ne ko Ibrahima mu ne ko Mbàkke mu ne ko loolu nga wax day kii nga koy waxal ba mu bëggee loolu yi nga bëgg ca kam ko bëggoon muy Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu ne cëpp fii ci kaw suuf su ma fi fekkoon asamaan si dong mu wóor ma ne mos naa ci rasulullahi mu wóor ma ne yonent saa sama mos naa xool asamaan si man ahmadu sama pas-pas may naa li ma bëgg ci moom danaa ko am kon nag yow ba nga fekkee ko ko mën a waaw sëñ Tuubaa ko nee si rek su ma ko fekkoon mu wóor bi daana ko xool rek man doy na ma sëñ bi war la nekkoon ci ak taalibeem loolu loolu moom moom moom la moom la tontu Cheikh Ibra Fall kon nag sëñ bi neen la su mooy kon nañ sax nag te daal di tàmbali liggéey bi te fas yéene cee nekk liggéey nag ma nag baat la bu sëñ Tuubaa fonk bokkut ak amal bokkut ak kas ci arab amal mën ngaa dem ca tool ya mën ngaa dem ca marché ba di di di di liggéey ak a sakk loo loo jariñoo yaag sa njaboot wala loo dimbal waaye ma nag ñaare dëgg dëgg xidma baatu xóot bi mooy nit ki lu mu di ko def te wuru ci dara loolu jëm yàlla nga xam ne maanaam amaana njariñ amaana njariñ sayr lu jël si ci moom du ko ci gis loolu mooy baatu xidma non la sëñ Tuubaa doon liggéeyal nak yalla tibbi sallallahu taala alayhi wa sallam arjo bi khitbatihi kawni huna wa waxadan inda al muqaddami misla sahbi man kurima sahaba ya doon mom di jaman ñu di ray rey ñuy daan ñooñu laa bëgg mel ci ñooñu laa bëgg bok waye dem na borom bu leen te dem na bax ni ne romb naa leen zinatu sahiri wa batini maha kawni qadiman lahu muttabia axdimuhu ila dukhulil janna dari xaraari wal munawwal min seigne touba ne so bëgg dal moy sàcc liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nag ñaan naa suñu borom li ma koy liggéeyal bu mu dakk mukk ba ba may teg sax lax sax ñu ne ma àjjana nga foofee fa la war a nekk sëñ bi na loolu moo dégg taalibe kon nag ak taalibe solo si mënee su ko mënee su ko lim bari na lool ndax sëñ Tuubaa neen day ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ci la ma suñu borom defalee lu ma bëgg mu yombal ci la ma suñu borom defalee lu ma ko ñaan moom mooy ma ci la ma suñu borom defalee ma am salaaxul xal bi xol bu yéwén ci la ma suñu borom defal te ma am defarub tey ak defarub ëllëg sëñ Tuubaa ne loolu lépp ci liggéeyu yonte bi sallallahu alayhi wasallam la ko amee waaye nag sëñ bi nag nee nañ kon war nañu fàttaliku tuuti ci la ci ñi sëñ Tuubaa doon liggéeyu yonte bi ci bokk na ca daana ko liggéeyal ci alxuraan sëriñ bi bëgg nañu taxaw ci loolu te daañu ci agsi nee na sëñ Tuubaa da ko liggéeyal ci alxuraan mokkal ko moom di ko tari saa su ne di ko mokkallu di ko bind di ko bindulu wuti daari kaamil fu ne jaar na ko ba dem na ba weer am ñaar fukki fan ak ak ak juróom-ñaar mu génne kayit wa sëñ min Lamin Jóob Dagana ak ñam ko booleel ne leen kayit gi tay la ñaata fan ci weer ñu ne ko tay la ñaar ko juroom ñaar mu ni ni barame ñaar ko juroom ñeent ñaar ko juroom ñeent bëgg na buñ nee taafeer ngeen ne ma kamil baangi ni xam nga lu ne lu ne won na ko ñaar ko juroom ñaar mu ne ñaar ko juroom ñet ñaar ko juroom ñent bëgg na buñ nee taafeer ngeen ne ma kamil baangi ni bañ demee ñu dal ko séddoo bindu ko ba ñëwee la ci gëna yé moy wenn xët sutaati morom té ñoo ba bind gisante kon daa am lu mu def ci ñoom am lu mu leen doon woon da nga ba mu ko jëlee mu sëpp ko yemale ko daal ni alhamdulilahi rabil alamin sant leen ma yàlla waay moom sëñ Tuubaa sant daal di sant li leen ma yàlla ndax lu bëgg ci moom rek am ko bokk na ci itam tagg yonent bi sa alayhi wasallam ndax ne li bëgg lépp ci yonent tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko amee muxaddamatul am daa muxaddamatul xidma ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu yëpp boole bind boole jàng boole liggéey yooyu yëpp ci yooyu la nekkoon kon sëriñ bi daan nañ nañ xel liggéey تخاني مولي خاني أب مولي بنو غنيك سنتوا أنا نحن سنتوا أنا سنتوا أبي مولي كيان تمسال سلام ما نام جم تكاي جم جلوم دم كل كي ما تخم جم تكاي خم كل كي دعيس كلو جم تكاي أيود سنتوا أمو تيم جلوم دك كيان تمسال سلام بتي جيتو موي أغروم روغي لجوه أبتالي بيجوه أغروهم نحن بقول سنتوا سلام لك يك بن بيتوب بجوه كيرام موي جوكو خلم جوكو بلجيم جوكو علام جوكو خم خمم جوكو نجابرام نالك سنتوا بيلد وايلت جنا يمي تكلم مسكو بيسكو جاي انترنو من كسر جوكو علنا على سانياري وجود سنمر انت سريع صونا جا بيني ماني متيم جت له اليوم بروحي والبدن وولدي ووالدي في العالم يا وسم برام يا رسول الله بس نكتة يوم تكاي بوما أم تجرب لجيل جيل جهنا لك جهنا لك تي روجي سما يرامي wa waladi ak doom ju ma am wa waalidayya ak sama ñaari waajur sax joxaay naa la boole bokk na ci liggéey kooku kii moo mën a jaayante kii moo mën a liggéey moom sañ Touba nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani samay doom sama jëmm sama diine lislaam ji tuubaa gii nu toog lépp rek jox naa la ko ci gàttal sax wa hakasa dunyaaya maa oxraaya booy naa àddina jox la bëggatu mu ci àddina dara bëggu mu ci alaaxira fii ne sëñ Touba bi lu mu ragal ci àllaaxira wala lu mu bëgg nee na ko bëggu ma àddina bëgguma ya alaxir yow la bëgg jox naa la ñaar yëpp jëlal sa aduna jëlal sa alaxir daani ila matin fu xubbu saadi yow dong la ya bëgg man kon loolu itam loolu itam lu am solo la kon sëñ bi ne na liggéeya ngoog nañ ci daal di sóobu neen nag bokk na ca liggéey yooyu lu yomb yoo xam ne si rawatina mbooloo rawatina mbooloo mu mel ne mbooloo mii nag boole ci ndax nee na kat dimbali daaree alxuraan ville sëñ Tuubaa la seigne bi ne ko nañ taxaw ci lool dimbali fu ñu jàngalee alquran dimbali seigne dara lëggéeyal seigne touba la dimbali dara xam-xam wala nga samp ko lëggéeyal seigne touba la gasu teen wala nga def sam ndox sa dara ci lu jëm ci am dox lool lëggéeyal seigne touba la jëmbat garab lu jëm ci lëggéeyal seigne touba la jëmbat garab sax mom day fal di fi ne fii bi bu ne bu fexe woon ba jëmbatu garab rek kenn xamul tay bu jëm tol lool nañ ko yobale taalibe bu nekk ci nun ñi loolu moom lool moom ak bëggam mi ngi ni toog góor ak mag ak bëggam kenn ku ne ci nun tey bu jógee fii na fexe jëmbatu ak garab na jëmbatu garab def ko addi sëñ Tuubaa léegi yoon mu roy ñu ci léegi Sénégal Sénégal ak fu fenn mu togg ci barke moom ñu loolu tam ci ndigal yi la bokk ay fajukaay ci ci ci la bokk ak lépp lu jariñ bi def nee na tam war nañu fexe ba wut sax ay barab ay centre yoo xam ne la muy jariñ mooy ay centre social yooyu sax jëmmi nit ki bu amee aajo luñ ko war a xalaatal day daal di xam ne bu jawalee fee am ci xalaat bu soxla woon ndimbal bu fa jawalee may su ko faa dimbali yooyu yëpp nee na mboole loolu lépp lëggeel sëñ Tuubaa la ci lëggeel sëñ Tuubaa la bokk ndax jëmmi sëriñ bi moom raw nanu waaye nag bi fi ba léegi ci yooyu ak nag yeneen yu baree bare bëri yoo xam ne tudd ko surtout nag nee na dimbali ko borom aajo yoo xam ne dafa am aajo tam wóor na ni mën laa dimbali te nga xam ko sëñ bi nee na boobaa bul xaar ba mu di la wax dara ci gis ku aajo dimbal sëriñ bi ne bul xaar ba muy ñëw ci yow loo mën ci moom na ko dal di def neen loolu la gën sëñ Tuubaa ku ñuy wax jigéen ji dëkk gànnaar la ku xam sëñ Tuubaa waaye moom dëgg-dëgg sëñ ak soxna la sëñ ko misaalum si moo wax lii gànnaar la dëkk ci lii sëñ mu Seex Musaa doon wax ci liggéey nee na sëñ Mouhamed Mbacké kii moo xam nu ñu liggéeyal sëñ Tuubaa ndax nee na nun day waa gànnaar maanaam wóor nañu te nangu nan te xam nan ne te am na yaqiin ci te teg nañ ci suñ loxo ci ne sëriñ Mouhamed Mbacké jëmbam yi nii joo xam ne ku am looy tiit am looy ragal boo àggee ci moom dootoo tiit dootoo ragal te def na daal te def nanu ko nee na jëmm ngi joo xam ne képp koo xam ne dañ laa doyadal ba xeeb la soo ñun dugg soo duggee ci loxoom ñëpp seen la ñëpp naw la nee na loolu liggéeyal sëñ Tuuba la nee na jëmm joo xam ne képp ko di ba amatoo lay amatoo bàyyi boo demee mu gën ci yow sa gën ci sa bàyyi nee na kii moo woon liggéeyal sëñ Tuuba nee na jëmm ngi joo xam ne boo demee ba amoo dara sa ji ba dara ni wucc nee na wuti ko boo fa jógee danga bokk ci fo ca ca ci a woom li nee na jëmm ngi joo xam ne loo woom li woom lee loo bari le bari le boo nee cëpp ci moom mu dolli la sab jal da nga yaakaar ne amu woon dara nee na kii mën liggéey sëñ Tuubaa waaye la ci yemee nee na jëmm ngi joo xam ne képp koo xam ne tey génnee woon nañ ko ba kenn soxlaatu ko kenn bëggatu koo teg bët daa la fat ba ku ko séenati bëgg fu mu fattu koo koy fattu fa loolu ab naa ab daara ko wax nee na nee na sëñ Mbàkke mi moo dëgg sëñ Tuubaa ci liggéeyal ko te nun ñëpp xam nañ li wax dëgg la ak loo xam ne noo gën a xam loolu la wax kon nag loolu lu mat lu mat a bàyyi xel la mu tëj nag waxtaan wi ci ci discours boobu mooy pas-pas bi mu waxoon mooy yitte jooju moo waxoon nañ ci taxaw tem ci pas-pas bu wóor bu xóot boo xam ne saxaaba yi ca lañ ca lañ ca lañ taxawoon sëñ Touba ca la taxawoon fii nii bu ñu waxtaan yitte sëñ Touba akub dëgëram akub muñam mën nañ fee fanaan waaye boo liiree téere bi Mouhamad Abdullahi Assane Xeeti téere bi mu tuddee am na faxaatul miskiya mu fay nettali. sëñ Tuubaa dëgër bi mu dëgër ci li doon liggéey Rasulullaay ak muñ bi mu a muñ day nekk li ci téere bi de am na bés sëñ Tuubaa woo ma nee na am na bés sëñ Tuubaa woo ko ba mu ñëw mu ne ko Mouhamed mu ne ko Bak mu ne ko Mouhamed mu nee mu ubbi ab bool amuñ ca wu tuuti nee na sëñ bi somp ca la mos nee daal ma koy daal ma koy jañ mu ngi nettali rek maanaam dëgëru sëñ bi nee bi ma nee ba taam di xelu nee sëriñ bi ne ma Mouhamed tey jii de ko xaala li sittu layaalin maa waqtu shay an qabla hada juróom-ñaari bis a ngi ci bisu tey bii sama loxo bi duggul sama gémmiñ bi sëñ tuwaa ko lépp liggéey rasulaay jaral yonent bi jaral ko loolu wax li naar mu ne ko tey de ñaari fan yoo xam ne sama gémmiñ gi dara dugg ci dul li naar moo ko ne moo ko fekk sëñ tuwaa ko kooku kooku mooy ki dëgër kooku mooy ki bëgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon sëriñ bi ne nañ nekk foofu bu baax leneen la ci des nag mooy kon nee na nan góorgóorlu bu baax jàppante bu baax xam ne lëggeel sëñ Tuubaa lépp lu waay bëgg lëggeel sëñ Tuubaa ba nga ci loola ñu ñaan mu defal na ko leneen la ca des nag di tombu ñaareel bi moom tomb la boo xam ne ne ko bu njëkk bi yitteele noonu la ko bi yitteele te kuy dem bale sëriñ bi dafa wax ne mbooloo mi nee na mi ngi sant ñëpp ku teew tey ci jotaay bi sëriñ bi ne na leen wóor ne xolam sedd na guy na leen wóor ne liggéey bii mu sedd ak lii mu ne tan ànd ci ak moom fu fooy mën a nekk loo ci def nga xam na képp koo xam ne dangaa jóg di am looy sakk boo sañoon am ñu la ci jàppale rawatina ku wut yalla suñu borom ku jóg ni fi wut suñu borom moom nak nee da daa ngir liggeel suñu borom yitte wona a ñu àndal waaye nee na alhamdulilah rabbil alamin suñu borom jox na ko ab ànd nee na nun ñi moko wax de neena ginaaw bu ngi yalla joxe ñu andam neena mi ngi leen di xamal ne képp koo xam ne ndee nga ko yow Cheikh Moustapha doyloo naa la jox naa la sama bopp yaa bokk sama sama diggal sëñ Tuubaa nii la ko waxee nee na képp koo xam ne nee nga man mii maa dox sa diggal ndig sëñ Tuubaa diggal naa la liggéey bii di ahibaaul xadim li nusu diwul xadim na nga ci na nga ci na nga ci dem sa bopp ci nekk guddeeg bëccëg looy la wax nee na liggéey bii lim sumb lim naan lim dëgmal ndab laa ngi nii mooy liggéey bi ahibaaul xadim te li wax na wax bi leral da am ñu ko fekk de neena kepp ko xamne jox nga ko sa bop ne ko ya dox suma digënde ak señ Touba digël lan la ne ahibal khadim loj na ci def lo man def ci do mënu mi ngi ni toog loolu la señ bi digle neena na kon yéen jóge ci section yi ñew fi ak yeen ñi nek Touba ak di ko wër ak fu waay bàyyi koo bi neena bu ngeen agaté bëgg na kenn ko ni fi bo fi joggé na nga la laxasaay gu bees fas yéene bi ñu and ko mo bu bëgg fa mu ko bëgg ndax neena fi sori na lool waaye nag yoon wi yaatu na te moom fi mu jëm ñemee na fi te noonu la fas yéene la neen nag waxut kenn nun ñi ko jox suñu bopp gi Sëñ Tuubaa lay waxal kon noonu mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp ñi ñaan suñu borom yàlla na ko fi yàggal suñu karam ba li bëgg la Sëñ Tuubaa lépp mu lëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu fu waaye toll mu tàllal loxo yi leeru cosaan labbayka jamsu la wuy siwul jamsu la wuy siwul mooy saay saay na warta sarxan ma xarban Mustafa sul waraaya faw xaweer ab leeraay xut boo ngi gaay wuy siwul dañ laa xamul géej gaa ngi am xaayaana ngi mooy wey ba xaay xut boo ngi gaay wuy siwul dañ laa xamul géej gaa ngi am xaayaana ngi mooy wey ba xaay baxrul xaqiqati wa sariati wa nada ju yafooru lil waraay yaay jenn waay yaay mbambulaat baxru nada sangu leen te duy yaay ndox mu teey ku la tabitooy ku yaay mbambulaat baxru nada sangu leen te duy yaay ndox mu tey ku la tabbi tooy ku la yaa murtajaab nu murtajaab nu murtajaa yowmal xiyaamati ñi ñu yaakaar nañ ñi saay ku la am diree koo amuree ku la ñàkk rus ku la reew ku du ree reew yand mbaalaa xub cafaay ku am diree koo amuree ku la ñàkk rus ku loroy du reereew yandam mbaa laa foog casaay yal nañ la fal nga ful nu bi jaayikum koo fal du faaleeb rank mbaa laa foog kuraay waajoo safoo day gën di safta dootu nu soof ku ko weddi seet kaseet dootu kaas tey jii baraay ku la ba soof day gën di soof te dootu nu saf ku la soof mu war ci naaru góol di tabal di raay yal nañ la soob yal nañ la saf yaa Mustafa ku soob mu sol jàllaabi mbaa mantoog baraay ku am di ree ku la jooy yal nañ la am yaa gën ndey ak baay ak xarit gën na jaay ku am di ree ku la jooy yal nañ la am yaa gën ndey ak baay ak xarit gën na jaay Cheikh Moustapha yaa namp